jërë ngeen jëf mbokk yi ci seen euh, teewlu ci télévision Futur Média amat nañu mbégte comme niñ ko baaxoo ñu def dimanche ju ne ànd tak yéen ci guddi gi nu jagleel lamb ci télévision Futur Média tey nag di guddi gi benn ci guddi yi ndax dañoo fas yéene jël jongante boole ak nu daal lutte toftal ca loolee nga xam ne moo di face to face war a dox diggante Tapha ak kooke di Boy Niang loola nag fas yéene nañ ko daal di kon sumb gannaaw ci ba nga xamee ni gan yi ñu xaar yëpp teew nañu. ba gannaaw nag bañ leen nuyoo ziar leen am mbégte àndat ak yéen ñu daje rek dalal suñu euh, xarit suñu nattangoo bi nga xam ni daa nekkoon ci waar wi ay bés ngi nii gisuñu ko tey nag nu lam loxo bi mu ñëw toow ndax itam dem na Gambie ba dikk léegi nag ñu daal di koy bàyyi moom itam mu nuyoo la ñu dalal kan suñu gan yi Lamine ñu bàyyi la Samba nga nuyook mbokk yi ñu daal dox ci programme bi. noo ngi ziar da sa grand frère man je suis ton grand frère. ba tey waaw yi na nga naan maa ngi sama grand frère. waaw ba tey su mag suma xarit. waaw maa ngi nuyu Sénégalais yëpp <laughs> di ziare ñëpp. di béggee ñëpp non sama xarit la <laughs> am li mu bokk ak moom daa garaaw. dañoo bokk rajo bi bokk télé bi. waaw te lool loolu dafa am solo. te am na temps yi benn publicité boo xamante ni dafa doon génn. ñuy wane ni RFM ak TFM benn la ñoo bokk ndey ak baay. Mhm. loolu li koy firndeel mooy présence su Malal Junior Diagne ci biir Futur Média télé bii. présence lamin Lamine Samba ci ci RFM et c'est c'est important ak ñeneen ak ñeneen ñu may nag parce que xam nga joŋante rendez-vous la mhm. dag may may ma baalu askan wi nga xamante ni dimanche bu nekk dañu koy seetaan te nag ku ku ku yokkul yaa wàññi ñu leen di jéggalu bu baax a baax a baax ndax comme ni ko Malal waxee dañoo nekkoon ci yeneen waar yoo xamante ni kër gi ñoom ñoo ñu yónni woon ñu nekkoon ci yeneen waar mais incha allah rabi nañ ko doon defee noonu lañ koy defee dimanche bu nekk dimanche bii di ñëw incha allah rabi jongante mooy jiitu après ñu ñëw nuit de la lutte comme niñ koy defee ak tim bi ñuy ziar ñëpp di béggee ñëpp di wane nag tey la tey waaye suba lañ koy nettali. tey la tey suba lañ koy nettali ñu daal di itam dalal ki nga ne moo di Pape Thialis Faye di promoteur bi tëgg combat bi tax gars yi foo dugg ci réew mi ak bi ci réew nu koy waxtaanee dox diggante Tapha Tine tax ci rib ak Boy Niang capacoli Pape calis maa ngi lay nuyu doo jox sa wàccuwaay. waaw maa la ñu ngi lay nuyu. tamit di nuyu Lamine Samba di nuyu tonton Khadim di nuyu public bu fi nekk donc di nuyu aussi directeur TFM donc suñuy partenaire lañu donc il faut ñu nuyu leen wax leen ni aussi kontaan nañ ci ñoom ci liggéey bi. donc ñu ñu yemale suñu kàddu fa ba ci kanam. ñu daal itam nuyu kenn ci suñu ay kilifa teew ci plateau bi donte dafa di communicateur traditionnel boo xam ni kenn dootu ko présenté ci mim réew waaye tey daa mbaxane mim fi toogee mooy daay wax ci turu parrain bi ñu jagleel combat bu mag bii nga xam ni moo wër àdduna muy Khadim Samb toogal fii le docteur Cheikh Kanté sàmb Samb salaamaaleykum. jërëjëf euh, Malal maa ngi lay nuyu bu baax euh, di la gërëm di la sant di la ñaanal yàlla yàlla may la gudd fant may la wér fépp fu ñu déggoon sama mag ju baax ji Alaaji Golbert Diagne Golbert Diagne maak suma xarit colonel Momar Guèye mi ma ko mm-hmm. présenté woon ci média yàlla nañ dafa dégg te nga sut ko fan amiin sa barkeem di nuyu Lamine suma rak suma xarit di suma wasee xam ni moom rek laa bokkal voisin ah sa voisin waaw suma voisin sa ñoo suma dëkkandoo mais sëñ Ali dañ ciy yokk voisin direct voisin direct <laughs> euh, di nuyu suma jarbaat waaw suma doom suma xarit Pape Thialis mhm. di nuyu nag euh, sama bopp rek laa fekk ci assistance bi ma fekk dama fekk sumay mag ak sumay rak pratiquement ñaara ma fi mag ma maasee kenn ci des ñëpp maa leen mag kon maa ngi nuyu mbooleem ñi toog fii ci góor ñeeg jigéen ñi di nuyu journaliste yi di nuyu mbooleem ñi ñuy seetaan ci àddina bi di nuyu boroom kër gi nuyoo boobu ma dajale yépp nag maa ngi ko jële ci ndigal ak kilifteefu le ministre d'État envoyé spécial u président Macky Sall la docteur Cheikh bi nga xam ni euh, bés bii ñu ko jox dafay bis bu mu fonk te bokk ci rendez-vous yi mu gën a fonk ndax daf may wax ni aw ma bis bu buñ ma jox président Macky Sall la ko moom. plateforme bi mu ko defal nga xam ni dafa nekk national ak international moom lañ war a jagleel bis moo tax yéen ñi ne bis bu rëy xamu leen li ngeen wax ndax bis bu ñu toll ci ñetti at yi ñu génn ak ñetti at yi ñu dëgmal ci kàttanu yàlla du am bu ñu toll ndax ki ñu ko tuddee tollu noonu. du ñu ko tuddee mu rëy ndax dafa rëy ki mu delloo njukkal bés bi rëy le dama ci suba dama woote Fatick ak siin gi nga xam ni fala maamam dëkk may sa waali jonn mi nga xam ni moo jiitu woon ci buur yu ñuul yeeg yu weex yi ñu ne ñooy jiitu ma ne leen déedéet da ngeen a juum seex bi ma ko tuddee jibirank rànk iléerab iléerab gumba mooy xàmmewul dugub ak am ñax boo demee Tamba ñu ni fa la dëkk soo demee Ziguinchor ñu ni fa la dëkk boo demee Kousanaar ñu ni fa la dëkk boo ñëwee Tiwaawoon Thiès Kaolack Touba Ndar Louga ba ci Fatick gi mu fekk baax baax ba ci ndakaaru gii foo ci dem ñu Cheikh fa la dëkk ñëpp ngi waaj bés bi tubarkàlla jërëjëf Khadim sàmb jërëjëf itam mbokk yi gannaaw ci ba nga xamee ni nag danoo euh, fas yéene léegi nag dalal kenn ci mbër yi nga xam ni Sénégal dañu ko nam Sénégal dañ ko gëj a dégg mu wax dañ ko gëj gis muy mbër moo xam ni def na ay jaloore ndax maa daan bombardier loolu doy na jaloore ma daan Elton day na jaloore man may mbëri bawol doy na jaloore mooy Tapha lamin moom laa bëgg nag ñu dalal ko mu yegsi ci plateau bi toog ñu soogam nag ñu dugal cappaacoli. mu am slogan spécial. Hmm. takk ci rip. kon doxal. ndax jamono bi nga xamante ni nii moom lay wax takk ci rip jamono boobu ci la bëreeg ndaanaan yépp hmm. lambal lamb ba lamb daj. nga ne ma ban mbër moo mës a yóbbu bombardier ardo ardo lambal lambal xoolal xoolal combat yëpp bëriwul de nga xool du ma ne mës ta dem ardo de mais ardo delluwaat ba alcool marqué manqué dakee manqué micro crop manqué ñuy mm. wër pharmacie de garde mm. moom rek ko def Elton moom rekk ko def bombardier tubarkalla ñu xool ñaari mbëri li ñuy waxante ñoom ñaar par caméra interposée buñ ca génnee dalal tax ci combat bi. lu si bañul. man bañu ma ko ci. na xam loolu bu baax loolu boo ñaaw ma la wax loolu nee na boo ñaaw bi loolu ci combat bi loolu ci bañul moom boo ñaaw ko na xam loolu bu baax bu jàppee daa bëgg combat bi moom fii la ma toll ci bëgg combat bi na xam loolu. non benn combat mënul def euh, risque ci Tapha parce que booy xool mbër yi ëpp doole ci làmb ji menam Tapha Tine moo dajeek ñoom fi mu ko teg bari na fu rëy laa ko teg làmb ju rëy la man li ma wax moom laa xam mun sama kopp xool de te incha ci kàttanu yàlla dafay naan nga xam ni combat bi du sedd na xam loolu baax parce que dafa warul sedd sama diggante ak moom parce que moom moo ko déclenché man ak moom am na suuf la xam ne du sedd te fu ma woo maa koy xaar pare naa ci lépp. waaw d'accord loolu moom waxam la quoi. te maa ngi liggéey loo xam ne ni man pour man tey tey Tapha Tine tey bâtiment bu taxawoon sama kanam li may liggéey bu ma ko nee puusal day puus pour man. supporter Mboñaa nekk leen wax ñu waaj parce que contre la déggee gis nañ stade bi ni ñu ko def mais dama ko xeeb dama bëgg bii incha bu ñëwee ñu tëj porte yi ci kàttanu yàlla incha allah. salaamaaleykum mbokk yi le huit la Tapha Tine ñaa Niang arène nationale le huit août incha allah rabbi dina tàng dina neex. waaw na ko amateur yëpp xaar la mu juróoy lay doon. rek lay doon du weesu jongante ndam li du génn réew mi ñaari doomi réew mi lanu boole waaye danoo bëgg téléspectateurs yi xam ni ñun Futurs Médias danoo bëri feem te suñuy mbir dafay def assaut ni ko soosey wax maanaam yëppay nuroo wii toogu ngeen gis mooy toogu tafatin waa ji moo fi toogal tafatin 19 heures la ñëw timis fi la ko fekk gee fi la ko fekk tafatin lay woo mi ngi ci ruq yi. dikkagul gàddu seen si su bopp indi. seen su bopp mm. ndax dañooy def seen ay bagages seen i. teg seen nitu bopp. teg seen nitu bopp. ñu jël suñu matawukaayu bopp. ndax xam nga lu indi teggi. Mm-hmm. kuy teggi. waaw kuy tëroo ci ay. waaw kay. am na loo xamante ni xewoon na fi neexul kenn. mais ku lu lu ñëw tey dañuy xam ni Futurs Médias mm-hmm. ak promoteur bi jël nañu seen matuwaay. Mm-hmm. ci biti ci biir. ak bu ñu noppee kon pour wane ni rek am na ci loo xamante ni dafay am lu bari loo xamante ni nañ ko jàppee leçon mhm. le temps que nag nuy xaar ki nga xamante ni ni moom mooy tafaatin ki muy dajeel ndax soo waxee ci kenn da ngay wax ci keneen mhm. tafaatin wax nañ ni ki mu yóbbu ardo waaye est-ce que xam nga ni ki doon bëre démb nu mu tudd Sa Thiès Sa Thiès est-ce que xam nga ni mhm. ni ko li li ko dafa am lu xew dama bëgg indi Tapha Tine nga soog a dem. ñëwal dañuy bañ am nga la bi mu tàkk. Ah. dañuy bañ jësel bi tàkk bu tàkkee du ma ko mën téye. waaw man nag essence ma jësel. waaw kon ba tey baax na mais daal dañuy bañ bësel bi tàkk léegi nañu indi Tapha Tine bu dikkee ñu soogam di nag euh, bàyyi Lamine mu daal di dugg ci ki nga xam ni mooy xale euh, Pikine bi noo woowee cappaacoli ndax. cappa du ci dugg man kese de. ndax ndax cappaacoli non ndax ndax cappaacoli dee su ko dee su ko woowee cuune. déedéet kon Tapha Tine yegsi na mu ni. dañ leen tey si buntu déet bu lay kenn téye. waaw loolu. nanu xaar waa réalisation ñu ñu. xam nga loolu lan lay prouver. loolu lan lay prouver comme euh, comme comme comme dañu wax en direct. dañu xam nga dañu wax en direct. que ni dañ leen téye ci port bi du loolu. sécurité bi moo ni mel. tey suñu la nee deux personnes ñooy dugg. deux personnes yooyu nga àndal ñooy dugg. amul négocier de midi à 14 heures. Ah, li xewoon dootul xewaat incha allah. ba ñu wax ni dispositif bi mu ngi dooree rond bi nekk boori bisis booy dugg Almadi. foofu la gendarmerie taxaw ñëw ci rond bi ci topp ñëw ci angle TFM ba ci ginnaaw fii fépp am na karange bu mat sëkk boo xam ne dañoo bëgg mbëri doon ay ndaanaan amal seen liggéey ndax lii ci seen liggéey la bokk. dañoo signé contrat loolu mooy seen noonu daraagoo la Moustapha la Moustapha yegsi na le géant du Baolongo Tapha Tine yegsi na mu ngi nii di ñëw ah, waaw ànd ak waa këram nu gunge ko gunge nu mu mën a nga ci taqrib mu ngi noonu ah, di dikk moom tafaatin Tine tent bopp bi tent bopp bi ngir nag fas yéene aw fas bu xonq tontu ci laaj nuyu na mbooloo bi salaamaaleykum salaam Mouhamadou Moustapha warkalla mu ngi noonu <laughs> ñàngal bi ce n'est pas pour rien ah, ñu koy woowee le le géant du Baol jox bés bi cër bés bi cër ñoo am mbégte lool dajeeg moom ci plateau waxtaan xam nga lu tax mu jox bés bi cër mhm. xamuloo ko de déedéet ñëwal xamal ma ko non dama bëgg sénégalais yi xam moo tax Tapha mii jox bés bi cër mhm. palaasam ci làmb la nekkagul mhm. xaadim lan la ñu mës a wax ci borom borom bitiku mbagg boo gis boo xaree xol bi magasin bu rey nga cee fekk bëri na combat royal diggante mag Balla Gaye numéro 2 waaw euh, tabaarkàlla macha allah euh, dañu ñaan rek yàlla sunu boroom yàlla na def ci réew mi jàmm defal ko ñu ko dëkkee. acca ah, bismillah euh, gis nga béjjënu kooba yàlla mm-hmm. sunu borom dimbale nu ba ñu dugg ah, ci ak baa jërëjëf siin ci kàttanu yàlla mm-hmm. barkal léegi ñu daal di dalal Tapha Tine mu nuyoo ñu soogam di laaj laaj bu njëkk bi calis ndax kii Tapha war a bëreel teewul ci plateau bi waaye mu ngi ci plateau bi waa waaw teewul plateau waaye mi ngi ci plateau bi. mi ngi ci plateau bi waaw noonu jàkkaarloog Tafa. Euh, Tafa ñu bàyyi la nga nuyoog waa Sénégal nuyoog say mbokk. saa waay bisimilah. Tafa euh, lii ci lii ci làmb la bokk de. dëgg la acca. ko toog ngi lay fay. ah waaw. Cissé. waaw ah, ñu may ko mu defaraat toogaayu micro tuuti. Euh, Moustapha ngi doon nuyoo. yow waaw may may mu taal micro bi. Euh, la la ta taal ok c'est bon c'est léegi mën ngaa nuyoo. waaw asalaamaaleykum Sénégal maa ngi nuyu kenn ku nekk euh, ci sa ak sa sant di nuyu Serigne Mountakha xalifa bu ak bépp xalifa ak bépp këru diine. maa ngi nuyu ñëpp di nuyu ba ci suñu mbokki chrétien yi maa ngi nuyu ñëpp waaw malal maa ngi lay nuyu di nuyu DG Pape Thialis mhm. di nuyu Lamine Samba Papa Khadim di nuyu aussi sama ménageur Père Mbaye Thioune ak Père Bourkhane ménageur Boy Niang may nuyu Boy Niang aussi di nuyu képp ku teew fii di nuyu Moustapha Kandji aussi Maxime Bergane ak presse bi nekk fii yëpp Père Mbaye Guèye maa ngi lay nuyu. di nuyu waa TFM yëpp di nuyu aussi ñi ma àndat mhm. convent bi ma àndal wax dëgg yàlla ñu ci biti di ma xar xam nga ñu yëg man depuis cinq ba léegi xam nga ñëpp mënuñu dugg nag. nañ ko mhm. comprendre noonu. Mhm. mais maa ngi nuyu ñëpp di nuyu fan si tafaatin yëpp di nuyu waa Bawol yëpp di nuyu fi mu juddoo muy Réfane xam nga ak li ko wér yëpp. waaw di nuyu képp kuy bëggee tafaatin daal di nuyu mëndu làmb di nuyu borom kër gi ah, Youssou Ndour sama mbokku bool bool maa koy nuyu bu baax. Mhm. waaw ak képp kuy liggéey fii daal maa ngi siyaare ñëpp daal di kontaan. jërëjëf Pape Thialis. oui euh, defoon nañu face à face ñaari mbër yi waroon a daje loolu antuwul tey defaat nañu face à face mu ngi toog Boy Niang daa mel ne nekkul ci réew mi. waaw effectivement malal Boy Niang dafa demoon euh, France dafay Paris dafay entraînement donc mën nañ ko jël par visioconférence parce que tey monde bi moo évolué évolué boo xam ne technologie fépp fu nit nekk mën nañ jokkoo ak moom donc mooy wane ni euh, technologie avancé na mooy wane ni aussi ñun aussi suñu jumtukaayu télé yeeg si ji yëpp dañu avancé parce que bu ñu mënee nit nekk ba bitim réew ñu jokkoo moom mu mel ni mhm. comme il est présent loolu dañ si sant suñu borom. Mhm. dafa dafa dafa mel ni euh, li nga xamante ni nii moom moo amoon. Mhm. dafa am loo xamante ni moo la ci juuraat. ci professionnalisme. ndax gis nañu tey keroog face à face bi amoon euh, mun nañu wax ni que Tapha teeweewu ko. ndax violence yi nga xamante ni amoon na fa. loolu dafa mel ne dafa am loo xamante ni ni jàngal na la ko yow promoteur bi ak ñi nga xamante ni ngeen ko séqal ba tey ngeen soppi beneen beneen feem. feem bi ngeen sotti mooy promo def ngeen promotion bés bi. woote ngeen li nga xamante ne ni moom mooy jotaay bi. Mm. ba tey askan wi ñëw nañu man gis naa lu doy waar malal comme man banlieue laa jóge amul max benn moto boo xamante ni nii. Euh, tey gars yi dañ gars yi dañ laa téye. loolu stratégie boobu ngeen def noonu. Mm. fan ngeen jaar ba taxawal ko dafa dafa dafa rafet pour ñu leeral ko. askan que c'est un bon travail et à aussi. waaw dañuy bëgg a sécuriser population yi xam nga li xawoon euh, cosaan dañ koy regretter ñun ñëpp lu ñu gënal parce que ñun côté boobu lañ dëkkee. mais bëggoon bëggal Sénégalais yi moo taxoon ñu defoon écran yi woo public bi pour ñëpp kontaan mais gis na am na lu mu jur loo xam ne xëy na si biir am ñoom comprendre ñu woon objectif bu taxaw ñu koy def moo tax ren fii jour bi tey ñu jël suñu motuwaay. Mhm. donc waxtaan nag kilifa gendarmerie ñu jox ñu kii bi ñu def visite des sites def lépp ñoom ñu ne ñoom ils préfèrent jëlee ko ci kaw. donc deux roues daw fu mu nekk nii. ba émission bi ba émission bi jeex. ñu gis ñu daal di dem Paris Lamine. Mhm. nuyu cappaacoli bi nga xam ni. Mhm. Tapha Tine la war a dajanteel. Mhm. gannaaw Tapha nuyoonu ñu bàyyi ko moom itam. mu nuyoog waa Sénégal. Euh, Boy Niang ñoo ngi lay ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoog waa Sénégal ak waa TFM. waaw di nuyu waa kër Cheikh Ahmed Sadou Abi waa kër Cheikh ngi leen di bu baax a baax di nuyu ñi nga xamante ni ñoo toog ci plateau bi ma njëkkee ko ci sama papa Xaalim Samb di ko ziar bu baax di la nuyu yow di nuyu Lamine Samba suñu père suma lépp di nuyu le promoteur Thiaris mi moom mooy bailleur bi moo tëgg làmb di nuyu suma adversaire Tapha di nuyu Moustapha Kandji ak Père Bourkhane yi nga ñoo ma fa teew ak ñëpp Sénégal ak monde entier bi seetaan télé bi yëpp maa leen di ziar di leen jox seen cër ak país rek mais fi ma nekk instant yi néew ma Paris maa ngi France mais nekk ma Paris maa ngi beneen dëkk waaw <laughs> non jaru ko jaru ko maa dëkk rek maa ngi beneen dëkk rek <laughs> waaw allo oui waaw man la préparation xam nga xam nga côté la dañu commencé préparation bi loolu yàgg na depuis ba combat bi taxawee ñu ngi doon liggéey ak suñu ay staff foofu donc dafa am loo xamante ni nag dañ ko soxla il faut ñu wut si ñu ñëw di ko liggéey ànd seeg suñu ay coach yoo xam ne nekku ñu ngi soog a liggéey ak ñun sama combat ak Sa Thiès ñoom laa liggéeyal donc yàgg naa liggéey ak ñoom maa ngi koy nuyu de passage di nuyu Eric di nuyu commando bi di nuyu Angelina nga xam ne mooy jabaram maa ngi fi maa ngi li nga xamante ni bëgg naa ko daal incha allah maa ngi sant yàlla bu baax a baax maa ngi koy am fii incha allah ci ñi def moom mi nga xamante ni moom mooy booy ñaŋ wax. moom la wax waaw tey bu teggee loolu dem France dafa am question boo ko laaj bu am importance. Mhm. que lan la wuti lu special xeex la fay jàngi. parce que ñëpp dañoo jàpp ni Tapha Tine dafay xeex moom wala lan la fay dem wuti exactement xeex parce que moom bëri bi bënn na. wala mu doo face à face bi. un point c'est wala nga doo face à rek boo ñàkk. match bi tas na. waaw comme li mu wax noonu am na solo baax muy saal boobu maa ngi nuyu Ousmane moom Ousmane mi nga xam ne moom moom saal Batora sama grand sama lépp. Hmm. di ko remercier bu tax ma ñëw fii tamit moom ci la bokk. Hmm. donc li nga xam ne ni moom laa fi wuti loolu man la concerné. loolu sama liggéey bopp la te sant yàlla bu baax maa ngi koy am donc doomu Fallou Fall mënu ci am foofu foofu ñu gisawaat gisawaat incha allah balaa léegi ñoo ñoo ngi ñëwaat ñoo ngi ñëwaat si si moom euh, Tafa combat bi bañ ko jëlee léegi fan nga toll ci sa préparation. day ah doo doo ko téye ci digg bi micro ba tax na maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp. Hmm. di kontaan ci ci ci ci ñoom daal. Hmm. waaw lamb moom xam nga da ngay pare ci côté bu ne rek. te loolu moom côté boobu wax dëgg yàlla sant nañ ci yàlla quoi hmm. franchement wax dëgg yàlla. bu dee voyagé xam nga. yàgg nañu voyagé préparé ci combat pare nañu ay combat fii. xamoo lépp sant yàlla la quoi. da ngeen am adversaire en commun moom dafa jël ñaari avance. jël jël jël jël Balla jël la. yow nga am foo jaar ak Balla Gaye ci bëre. tey nga jël xale bi nga xamante ne ni presque dañuy wax ni ka ay moroom moom maasala na leen na leen. ok te bu dee chance man ñeme naa taxaw ne Tapha moom may. Ah, ah, ah, Boy Niang chance. lan moo tax nga tourné foofu te ñu xam ni que yaa ngi ci biir centre VIP kenn mënu la ci génne loolu ak aussi tam ah, dafa am importance mbër yu bëri dañ leen di laaj kii xaalis moom ma booleeg moom kii su ma ko jëlulee euh, yàgg-yàgg damay retourné waat gestu te buggumaa gestu mhm. te yëpp ñëpp xam nañ yow sa objectif bi nga am yëpp deseel ko waa Bawol mooy roi des arènes Bawol yëpp boolewoon nañu ne Tapha Tine roi des arènes kese la Tapha Tine pour def nii jël Boy Niang moo tax waaw comme li ñuy wax rek lamb moom dug maas dabante la. mbër mi om soixante ak ci am vingt donc mën nañu bëre. suñu business la la des moom énewe yi. combat ah, bi Thiel mooy seet si ma seet si ko. dafa yomb yaakaar naa bi ñu koy taxawal waxtaan yu boobu moom. yàggul temps bu gàtt la. ba léegi kenn mësuma ci dégg ma waxaan ah. kenn mësuma ci dégg dara. kon man ba ñu ma woon bëri ak Boy Niang numéro 2. Mm-hmm. loolu la yàlla dogal. Mm-hmm. frère la adversaire la comme ni ma koy waxee. Mm-hmm. dañu war a bëree di bëree maak moom yal yàlla mbay ndam si kawam. mais mais Tapha dafa am importance que ni ndax day leer da amoon problème mu adversaire man xam naa ci dara ñeneen ñeneen ñeneen ñeneen am am nañ ci dara mbër yu bëri dañ doon daw avance su euh, euh, euh, Tapha ci ñun lu ñu xam lu ñu dund loo xamante yow xam nga ko man xam naa ko. waa mais Lamine lu lu warul am mhm. mu am mhm. ko yàlla dogalee ci moom. yàlla mhm. ko sant yàlla. mais euh, keroog laaj nañu Boy Niang bi ñu nekkee euh, cosaan seen différence de taille mu ni moom bëri ak njool ba pare teg ci doon luur miis na loolu ndax Tapha Tine miis na bëre ak koo xam ne moom moo ko sut ëpp ko léegi léegi léegi dafa tafa techniciens yi nee nañu micro bii ñu la jox gars yi si ginnaaw laxas ci morso bu weex bi morceau bu weex bi dafay ëmm émetteur bi ba li ngay wax kenn du ko dégg waaw nun waaw ñu ñu waaw euh, euh, xanaa ñun moom yoruñu lenn loo xamante war nañ ko def ci micro. foog naa ne ñun ay taskatu xabaar nañu ñun information la ñuy wër. donc kese waaw ñun tubarkalla ke ngay bëreel ma nga përi kon foog nga nga akas néew. Ah, ñu ñu a waxtaan. Eh, mais est que est-ce que du tegtal sax. parce que parce que liñ ko liñ ko njëkk liñ ko njëkk muuree. waaw ab euh, la. waa bi mu paree bi mu defee ci kii bi mu paree ab ko daf ko daf ko laxasawaat da ko laxasawaat waaw léegi ñu bàyyi euh, sa différence de poids ak de taille yow ak Boy Niang non loolu salle de mm-hmm. bu mel ni yow. dina xam nu mu koy tënk. luur mel ni yow moom anyway loolu du bu mel ni yow. non man moom anyway waaw. da téye. ci wax lan la. non dañu man sénégalais yi seetaan dañu gis beneen Tapha Tine peut-être bu xaw a mûr parce que Tapha dafa daan ñëw ci signature malal non tàngal signature ba mu tey ñu gis beneen Tapha Tine boo xam ne dafa dafa mature lan la waaw mais xam mooy li ma la da ngay màgg rek xam nga nga toll woon ay gisant ci ginnaaw ngay taxaw mooy yuuxante puusante tey ñun ñëpp affaire de mal. tabaay yàgg na yàgg na ay costume caravane. Eh, tey bu ma teggante bi lan la. waaw keroog ñëwul. nan dem nan nan dem nan dem si Boy Niang. ma ma nga France. ma ñu lijjanti euh, lii ñuul ci micro sama waa ji. tabaay bi soog am nag jàkkaarloog moom bu baax a baax. Uh-huh. waaw ku mos jàkkaarloo xam ni jëw a dàq. yaa wax loolu. nañ dem waaw nan dem euh, euh, Boy waaw maanaam. waaw euh, dé dégg nga Tafa nee na moom bëree ak euh, adversaire bu gàtt mbaa boo xam ne moo ko ëpp taxawaay du problème ci moom moom athlète da pare na pour bëre ak yow te loo te bu ngeen jàkkaarloo foo yëngu mu timbax la ko. Ah. waaw amul problème loolu moom léegi suñu ginnaaw mu ngi suñu kanam lu ñaan suñu borom defal ñu tànn ak fekk rek ba bis ba incha allahu rabi comme li nga rek bëre poids bëre poids lu wala bëre njool. loolu yëpp amuñu benn problème parce que bëri nañu kuñ sut bëri nañu kuñ ëpp tamit quoi làmb moom xam nga làmb moom ndoxtu la rek làmb du quoi xam nga làmb du du taay quoi bi laaj. dañ yàlla may tarak fekke rek incha allah. Mhm. mais ndax pour bëri Tapha Tine du laaj. nga jël nga jël nga jël dimanche may ñu ndam combat combat bi dafa nekk comba crucial. boo xamante ne nii risque daf ci nekk ci Boy Niang mhm. parce que dafa am xibaar bu jot daal ne waa kër Balla Gaye dañu ne bu Boy ñaar perte combat bi duñ bëre duñu bëre ak moom xibaar la information buñ jot la mhm. c'est à vérifier ci moom mhm. mu nekk moom entre le marteau et l'enclume parce que combat bi dafay nekk benn combat boo xamante ne nii soit day neexal combat am dëgg ak Balla Gaye wala mu xaw a am lu mu indi ci carrière moom ñaari risque yu garaaw yooyu mu jël noonu il faut sénégalais yi xam moom booy ñaar risque ñaari risque yu garaaw yooyu mu jël lan moo tax mu jël ko et c'est des risques et puis du risque yu ndaw ay risques yu mag la waaw Lamine dégg naa li nga wax mais affaire moom du risque ñun ay xale la dañ cee toll te man fi mu toll nii li ngay wax noonu sax jàpp ma ko man damaa jàpp ne fi mu toll nii benn combat la am muy sama diggante ak Tapha Tine. Mm-hmm. am na yeneen combat yi nga xamante ne yaa koy wax wala amateur yi di ko wax mais man gisul jàppaguma ko quoi man dama jàpp ne benn combat la am xale la maa ngi koy waaj ànd sama ay mbokk ànd ak waa Pikine ak ñëpp ñu may jàpp dañu nekk suma ginnaaw te maa ngi ci yoon bi nga xamante ni moom laa war a nekk de li ci des mooy ñu xaar ñaan suñu borom mbaa ñu dab rek mais ay risques yooyu moo am ci quoi ñun ay xale la ñu. war nañ bëree ku nekk quoi amul benn problème boobu. Tapha day xeex de. waaw amul problème Tapha champion la day xeex day bëree benn problème. làmb moom loolu la ñaan ñaar yooyu la xeex la ak benn problème. bu xeexee di nga ci tontu. waaw bu bëggee ñu xeex bu bëggee ñu bëri amul benn problème man amoo problème boobu. Tapha yow bu la gënal ci ñaari xeex bi wala bëri noonu ah, da nga koy téye ci digg bi. Tapha Tine moom xam nga ku ko xam-xam ne mbër la moo xam ne wax dëgg yàlla dañu ma tàggat ci côté bu nekk. Mhm. ma koy sant su may entraîneur ku mel ni Mbaye Ndewaan mu yor ma dix ans mooy bëre quatre-vingt mille ba léegi. Mhm. xam nga coach yi nag bëri nañ ñii ci boxe bi ñii ci musculation bi ñii ngi ci lépp may sant aussi coach Mohamed ak équipe bi yëpp sant waa Serena aussi ah. Mhm. nga xam ne tout le temps ñu ngi ci ginnaaw Tapha Tine xam nga. mooy li ma lay wax rek lamb moom da pare côté bu nekk te tafaatin wax dëgg yàlla pare na côté bu nekk. mbër mi gàtt na mbër mi njool na tafaatin pare na loolu quoi France. yaa yaa nga jëm arène nationale. mun nañu wax ni bu ñu doon xool euh, localisation géographique booy Niang mooy bëre à domicile. mu ne sa premier combat ci arène bi nga xam ne léegi fa la ténor yi di bëri ndax loolu nekk na loo xam ne yaa ngi ciy bàyyi xel. waaw mais lu am solo la mooy li ma wax rek arène boobu moom xam nga pour ñëpp la quoi. yow de bàkko rek nga fa def. état bi dañ ko def pour ñëpp. Mhm. comprendre nga nga dëkk fa nga ñàkk faa dëkk yëpp xam nga kenn ëppale wu fa sa morom virgule quoi. Mhm. Mhm. yaakaar naa dinañu dugg ci jàmm. yàlla may ñu ci ndam ci jàmm ak salaam ñu génn ci jàmm ak salaam dem ñibbi quoi. ban tafaatin la ñu gis lu lu huit tafaatin boo xamante ne dafay ñëw gëdd xeex parce que ki ngay bëreel ñëpp dañu ne bukki la xam nga bukki ah boo ko daxee gauche droite la jëm. waaw Lamine mooy tafaatin bi nga jàkkaarloo rek ak tafaatin bi nga yeggoon jàkkaarloo di def ak moom émission. mooy tafaatin yooyu ñu doon gis moom la ñuy gisaat. mu ngi noonu. muy indi di di di rafal gaay tafaatin boobu rek la. moom nga jàkkaarloo. non ma yegg ca mooy tafaatin bu soxor ba. non du question soxor. xam nga ah, si non euh, bul wax affaire boo yóbbu affaire soxor. day non tafaatin waxuma wax xam nga soxor. Mhm. dañuy wax xol. Mhm. bu dee xol kenn gënu ko tafaatin. ñun dañ la maanaam dañ dañ maanaam dañ la xam en tant que mbër xam la en tant que nit doomu aadama bu tekkiwul ngemb tey am na nu mu doon demee noo xamante ni tey boo signé wul woon contrat tey ñun ñëpp ngay jox loxo te ñëpp koo ci koo ci dajeel peer nga koy wax mm-hmm. mais Tapha boo xamante ni nii tey bu la dóoree sa R4 ubbeeku fa mu ko timbax foofu la koy rimbaxaat non non bul wax loolu quoi bul wax loolu <laughs> Sénégalais yi seetaan xam nañu Tapha Tine kat la xeexu gën a lu mu am da nga soppi jikko ci diggante bi waaw non du question soppi sax xam nga làmb ji moo koy laaj quoi xam nga kenn ku ne da ngay ak sa mbooloo ñëw ànd ak sa ginnaaw ñëw et puis xam nga nit ñi son ci yow aussi da nga leen di bàyyi xel mm. xam nga du ñu la préparé ci yenn bés yi bu ñëw di asaaloo sa combat man du mu def loolu dama ciy jëmbat fulla ak fayda bu lu ma yàlla may ma jël quoi. Mhm. gëj a bëri bi ndax du indi manque de repère ci yaw ci arène bu bees boo xam ne mosoo faa dëgg bëri. ak bi jub lu mujj bëreel yàggul. non loolu moom loolu moom du ci dara quoi ah, loolu moom per repère moom yaakaar naa duñ kii ko wax chaque jour ñu ngi bëree ak xale yi xam nga ci place yi ci école yi. même di profité di nuyu Bamba Fall xam nga. Mm-hmm. moom mi ñu permettre entraîner ci Médina bi partout école bu ñu neex. Mm-hmm. wax di ko xam monsieur le maire. waa bi xam ñu ko ci xaar daal. vraiment mm-hmm. dañu jot information. boo xamante ne nii du ñu dévoiler source bi Max ñu ngi lay nuyu bu baax Max Mbargane suñu mag suñu xarit fii ngi ñu toog nii am nga fi place. su la neexoon nga toog li mag Malal junior di laaj mën nga ko ñu ngi lay jox sa wàccuwaay Nafi Ndiaye aussi tam suma sœur ñu ngi leen di nuyu ak euh, presque bi nga xamante ni ñoo fi nekk yëpp Burhan ñu ngi leen di nuyu bu baax mm-hmm. mais dañu jot information que ni tugal boobu booy Niang dem dafa recruter ay ñu koy jàngal xeex information bu buñ jot la peut-être moom après Malal dina ko confirmer wala mu infirmer ko xam naa du ne mukk damaa dem pour jàngi xeex mais ñun jot nañu information boo xam ne dafa recruter ñett ñoo xamante ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu xeex pour ñu jàngal ko xeex parce que dafay xeex ak yow. waaw loolu moo baax loolu wax dëgg yàlla baax na. pare combat moom dama lay wax naan loolu loolu si gën a loolu loolu si gën a non loolu <laughs> mais mais su am la. moom li tax mu dem ja dagg bi dem. gars yi dañu jàpp ni yow da ngay xeex ak moom. non man moom lu làmb ji laaj suur boobu rek. Eh, xeex la laaj de. waaw d' accord amul da ngay xeex. non man lu mu laaj rek damay def. loolu ma xeex la laaj. non lu mu laaj rek. anyway. Euh, euh, balaa ñuy ñëw ci Papa Thialis ak. Euh, ak Khadim Samb ñu tëj parenthèse boobu rek booy Niang est-ce que da nga dem pour rek yokk sa capacité si bagarre. parce que am na bagarre de rue am bagarre organisée am combat tacticien ndax danga nga jàngi xeex wala da nga dem rek pour def def préparation globalisée. waaw bu ma la dëgg nag moo doon ñu liggéey te liggéey bi nag comme fixé wuñ ko fenn quoi la fekk dañuy xeex wala mm-hmm. dañuy bëree wala loolu liggéey bi fépp la làmb moom lépp mi ngi ci biir quoi am na bëree am na xeex donc nag ku am booñaa rek la côté préparation xam ne ñoom làmb mosuñu ñëw làmb ci meeku ni ñu def ni dañuy tëddi naroo xam nañ luñ bëgg xam nañ luñ koy may te liggéey bi ñeme nañ ko bu baax a baax. donc nag amul souci boobu dañoo ñëwoon rek pour liggéey ñu ngi liggéey incha allah. booy ñaa guddi guddi Tapha lay woo ci bagaar. loolu techniciens yi ñoo ko wax. waaw li ma la wax. waaw. ne nee naa la bu bëggee ñu xeex bu bëggee ñu bëri incha allah. moom lay dépendre amul. bu la ci gënal bu la ci gënal. waaw ñaari ba neex lu gënal amateur rek gëmal na ma incha allah. léegi mais léegi arbi arbi arbitre bu soufflé ndax mun nañu xaar booy ñang njëkk njëkk njëkk tooñ tafaatin ci xeex ah lépp mën naa am làmb rek lépp mën naa am làmb rek waaw moom lii mu sol du li mais waaw leen laa laa xam ne mmh. mooy incha allah ku xam tafaatin mmh. ku xam mmh. booy ñaa xam ni combat bu neex la yow da nga nekk dañu dañu gis nga sol casquette Liverpool ak euh, blouson euh, Juventus lan la euh, jaxase menacé boobu lan la dafa loo ci war a wax wala lan la loolu <laughs> li li li yëre la rek li abi rek li dara abi rek baax na daal euh, Père Khadim Samb waaw euh, maa ngi dem ci loolu Père Khadim Samb déglu nga xale yi mhm. kii indi na sérénité bu mat sëkk kële indi confiance ci li mu ci fi mu wéeru ci ñi ne ci loxo ci yi mu ne wóolu na ni ñooñu daana ko tàggat tàggat woo xam ne dina daan tafatin mii boo leen déggee nu wax lan nga jàngat ci bii combat waaw jëf euh, Malal bala maa ñëw ci loolu damay wax ci tur ki nga xam ni moo ma fi indi loolu daan ci ñëw père pare pare dana ci ñëw na sa xel dal dama bëgg nga ah, fi mu ne nii question bi dama ko posé communicateur traditionnel bi. malal ma dimbali la posé gu ma ko représentant parrain bi. malal ma dimbali la. waaw boo ko jëloon léegi or antenne. waaw mën na laa wax léegi léegi moom Max Mbargane bii. tërinu combat bi léegi nii ak Burhan. fi mu ne dama bëgg ma wax la communicateur traditionnel bi ba pare. may ñu may ñu ci waaw ñaari xale yi. ñaari xale yi. déglu naa leen gis naa leen maa leen jur. samay doom lañu ma di leen ñaanal yàlla may leen wér. may ko seen njaboot may ku Sénégal gépp même ñi nekk ci biir àddina bi ak diaspora bi ñëpp yàlla may leen wér bala wiit bu neex yàlla ñoom ñaar seen daje dina bokk ci daje yi nga xam ni fii ak quarante dina ko bind ndax ñoom ñaar ni ñu juddoo ci Bawol ak kenn ku nekk askan ba nga bokk ay Bawol Bawol la ñoom ñaar waaw kuy daw amu ci dama ne maa leen jur. Mm-hmm. dëgg la maay seen baay waxum maay seen baay rek ci dajeeg ñoom. Mm-hmm. kii ma nga dëkk diggante reefan ak ndereb ak réewu maawo ak kuunguun ak mexey ak mbajaan ak altu ndàngal ma ak mbaaba garas kër sàmba kan ak dingiraay ak gol ak njuum ak njarnu njoobel ak njarnu rikaaj mm-hmm. booy Niang mi ngi juddoo bàyyi ma ngi juddoo kenn ku ci ne wax fa sa bàyyi juddoo mhm. seen cosaan Boy Niang cosaanam mi ngi diggante Sambe Gent ak Sambe Tokosoon ak Sambe Xojël ak Paataar mhm. ak Ndula ak Kër Awa ak Jollo ak Jongo ak Dongo wuti Soogaanu goog bàyyi Sëriñ Daaru mi jur Cheikh Mbacke Ndiaye mi ñu dénk fi fi ñaan mhm. ñoom ñaar dañoo juddoo ci ay saaxit ndax kii fi mu juddoo kera bi nga xamante ni bii ñu ngi waaj xareeb xasar na keroog maamam ju ñuy wax jaraaf al ndaw dafa fetal juróom ci gawar ak birima faat ma cubb gi ba mu ci ba mu ci fetalee juróom ma ko du def ko ne yaa ngi jeexal gaañu mu ne ko dafa am lu ma waxante woon moom dañoo xas-xas loo woon ñoom ñaar dañoo xas mooy maam yi a bëgg a dellu si démb mhm. xas-xas loo ba nga xam ni birima da koo xas xawoon jaraaf al ndaw ci néegu lingéer ne ko xanaa xamoon dama fii dikk mu ne ko fooy ñëw dama fa war a ñëw mu ko dama laa war mu ne ko war da nga ko wax waaye doo ko def mhm. booy ñang nag fi baayam dëkk mu dëkk fa muy saambi gii ma limal Lat Joor Ngoon Laatir fi la jég fi la fi la jëkk a dégg dameel teeñ ci la xeex ak Yaasin Joor Galaw Gaam ne keroog la ñu takkal Alburi ndomba gu ñu wax faraka ba keroog la ñu rey sa Tabara ci Yaasin takk dem siin kon ñaar ñii seen bés seen bés war naa neex te bi maami bu maami kii masaa takk di xare ji maami booy ña taxaw ci kanam moo daa jiitu ku ñu jàmm mu xam ku daw mu xam ku dee mu xam kon bu jamono doxee ba jamono boole leen métier boole leen li ma leen di ñaanal muy ñu wér waaye man mi xam kenn ku ne fa nga cosaanoo moo tax ma ne la fii fukki at ci kanam wala fukki at ci ginnaaw bés bu mel ni seen bés dootul am ci neex ak rafet benn mm-hmm. ñaar mooy kiñ tudde bés bés buñ ko tudde mu wiis dana neex muy le ministre d'État envoyé président Macky Sall. kenn du moom maa wax lii man maa ci xam dara. te it bokkul ci parrain yi nga xam ni promoteur rek la ñuy dimbale dëpp. déedéet. dana def li mu def waaye ñaari doomam yi dana leen dimbale. waaw. dana dimbali communicateurs yi. dana dimbali reporters yi. dana dimbali tëggkat yi. dana dimbali woykat yi. xoolkat yi sax Cheikh Kanté dana leen dimbali ba ànd ak dogal yàlla lu tax. ak menacé yi. managers yi ñooy mm-hmm. premier partenaire ab dana leen dimbale li tax mooy dafa am plateforme boo xam ni moom la créé depuis des années ci ginnaaw Baye Fallou président Macky Sall la Cheikh Kanté tudd plateforme boobu mu defar nag pour war a feeñal li président Macky Sall defal réew mi defal ko nit ku ñuul ci wàllu liggéey xam-xam moom la fas yéene delloo bés bi njukkal plateforme boobu plateforme boobu nag dafay wax ne man awma bés président Macky Sall lam bis moo tax luñ ma terale ma delloo moo tax ma ne yàlla du juum ñaar yi gën a bëgg président Macky Sall ñoo woote la sept ak le huit mooy maag caalis sama doom te doom na sa xel dal yow yaa woote la sept maay léemu maay léemu arène nationale doom <laughs> maay woote la sept moo tudd xaadim ba <laughs> kon man mi woote di delloo njukkal président Macky Sall muy deuxième édition. Eh. la set ca arène national maa koy léemul sama doom ji. dëngam nag Cheikh ànd ak moom ñu ànd ak jaxaw si nag jaxaw Saalum. mais mais xaanim est-ce que ñun du ñu fanaan le sept euh, euh, bu ñu paree dongali wute le huit. li ma xam xam nga demala ne bés bii dootul am wala dana gëj. Hmm. xam nga dama la ne ñaar ñi gën a bëgg président Macky Sall ñoo koy teral la sept ak le huit. Hmm. ba pare lépp nag di bawol xam nga siin ci bawol la bokkoon mhm. ndax seex mari jonn lu ko jur ngóor mi ko jur may sa waali ko jur te may sa waali jon moo jëkk doon buur bu ku ñu ma sa génne sa dëkk fat na la mhm. ma teg sama baaram foofu doom bëddal si waat doo ko fa teg il faut nga may ñu ñaar il faut ah. mu may ñu ñaar mhm. ñaari style ñooy daje ñi ne tafaa tafaatin xeexkat la booy ñang ak bukki la boo ko daqee day dellu si waat waaw loolu Euh, Tafa daf ne làmb du ak mas dabante la. maa wax loolu faala ma ko waxoon. Mhm. te làmb ku ci yàgg ku la man fekk la ci. ku daanul champion doo dégg daal ku bëriwut ak champion doo doon champion. Mhm. ñaar dafa am ci komba bi mooy kii jàngatul bëre jàngatul xeex wér rek lay ñaan. Mhm. ba bis ba. booy ñang jàngatul bari jàngatul xeex mën naa yokki dooleem ak wut diis. ndax kuy daje kii foog nga wut diis foog nga yokk doole ñoom ñaar kee ay ñaari technicien lañu xanaa xamoo ne Tapha xeex du woon ba du woon sologaam ci bëre da ko dab jaaxlee ko ci yóbbu bëgg làmb ji gaaw a jeex waaye Tapha bëre la doon def mhm. ku xool mboot mi mu mujj bëre xam nga mhm. bëre bi mu mujj a bëre mhm. du du du du Abdou Diouf Yékini Senior la boot caalis ko tëggoon kon gis nga caalis bawol tafaa bawol booy ñang bawol caalis a ko mujjoon a tëgg moo ko tëggaat booy ñang nag danga nga ni bukki timis la boo ko dàqee ci sa gétt boo tëddee nelaw mu del siwaat ñett am na ci am na ci bëre amul ci làmb ji ku ko ëpp doole ñaar yoon amul moom booy ñang booy ñang dëgg la te góor boo kopp ñaari yoon doole wóor maa ko man mhm. benn mooy technicien la xam nga wax naa léegi ci benn seen ne leen làmb ji du am ardu du am dóor mu daanu lépp ci bëre lay jeexe parce que dañu war a bégal amateur yi làmb ji war a jeex ci kirib tàcc dañoo war a teqante gala jaane mboot kenn teggi teq tequm biir sol ca caxabal lal li wër ndomba lool lépp dafa war a feeñ parce que ñaari bëri làmb ji du am ardo non non non ardu bu du liggéey dara bu soobee yàlla day chômé. ndax Tapha Tine yow di nga nangu loolu. Ardo day chômé. mais mais mais mais mais. xaaral xaaral xaaral ndax Tapha nangu loolu yow. Ardo day chômé. ndax di nga nangu Ardo du am. bàyyi xaadim la rek moom. Ah. waaw moom loolu loolu loolu loolu la defee. Eh, kii yam nan waaw mu ngi. mais yow mi ci digg géew bi jour boobu Ardo day denc ay bagages am du chômé. day chômé en li ma la mën a wax lamb la lamb ju neex la. mooy combat bi dàq ci année bi. waaw waaw koy waxe boo gisee début. non mooy combat bi gën a neex ci année bi. loolu moom ñëpp wax nañ loolu loolu la yàlla dogal. dëgg la mm. waaw kon lam la yoo xam ne nii xam nga nañ nañ ci gëstu lépp daal. lépp a ngi ci léegi Ardo day liggéey bés ma non lépp a ngi ci incha allah léegi sax damay dégg benn laaj boo laaj booy ñang ne ko dañ ne bu daanoo ci tafaatin du bëre ak Balla Gaye loolu ñu koy wax xamuñu luy làmb mm. booy ñang bu daanoo ci tafaatin ca la làmbam di gën a ubbiku ca lay gën a neex ku say moroom jari bay boo jëru bay njëgu bay nga bu mm-hmm. gàccee dañ gars yi dañoo wóoy tafaa daw ba ko fi mu jël ko mm-hmm. dëgg kon am na ndam dèjà fin mu ni ñoom ñaar xam nga titre lu ñuy bëri mm-hmm. titre roi de sarine yéen ñaar moom ngeen di bëri lu tax loolu seen dimension ci làmb dëgg kii dafa bëree ak ñu yor roi des arènes ku mu ci jàkkaar loolu tàkkusaan dañ lay muur delloo say bokk boo yeggee doo gis ñu ba ko fi booy ñëng dikk jël ko. dëgg la. xam-xam nag laay wax ak waxi technicien. li ma ne ardo du liggéey damaa xam seen bëre ñoom ñaar parce que dama koo man te maa leen jur. li ma leen di jëkk ñaanal mooy yàlla na ngeen wér doom bu ñëw ak jàmm. est arène national fees ba nit amatul fu mu taxaw ñu jaay billet yi ba jaay ay suus incha allah. xat du damm réew mi lépp dox xaalis am yëf yi neex. Eh, ñu togg poulet di pays treg ginaar yi <laughs> yaa ngi dégg ñu dem ba sédiment jeexal ginaar ci Sénégal xar yi jeex dibitër yi bimbaane nit ñi sañ sa dikk parce que loolu la ñuy def maay léemu maay léemu stade macha allah mais Tapha Tine ndax ndax di nga di nga prioriser bëre sa diggante ak Boy Niang suñu xamee ni yaa ko sut suñu xamee ni tàmmoo bëre ak ay nit ñu am taay bu mu yore parce que ñi ëpp ci adversaire yi nga bëree yéen tolloo taxawaay yéen a xaw a tolloo gabarit moom yaa ko sut yaa ko ëpp gabarit ndax di ndax xel xalaat na nga nangu jiital bëri ci combat bu di mel. non ëpp mu ko de sa waay cargo la de xanaa gisoo ko. <laughs> waaw waaye lu mu doon cargo cargo yow yow yow yow duubal jégg yaa ngi ni fàcc barkalla macha allah. non non ba <laughs> nga wax. xam nga làmb moom da ngay pare lépp. ñun bu hmm. dee xeex yàlla baaxe nañ ko bu dee bëree yàlla baaxe nañu ko kon dañuy sant lépp yàlla. di xaar bés ba rek yàlla may mu dam ci kawam quoi. léegi dangeen ngeen woon keroog ku nekk xasante ak sa morom nga xaste sa euh, Boy Niang xastee malheureusement Boy Niang mu ngi France ndax dafa dem préparation yaa ngi toog waaye mën ngeen a waxante te danoo bëgg yéen ñaar ngeen waxante. da nga leen bëgg a te gannaaw yow yaa fi ne dama bëgg nga njëkkee. taal la première mèche Boy Niang mu ngi nii nga. jàkkaarloo te mu lay dégg dama yow dama lay wax dama da nga ah. leen bëgg a ëffal ñoom ñaar. ci laa jëm. yaa ma ko jàngal de ruube. non man ruube wu ma de. <laughs> léegi léegi dama bëgg waaw. dama bëgg tafati booy ñaa mu ngi nii nga jàkkaarloo. non booy ñaa tafatin mi ngi lay nuyu tafatin booy ñaa mi ngi lay nuyu. ngeen waxtaan nu nu déglu ngeen ko. waaw waaw comme ni ñu koy waxee booy ñaa maa ngi lay nuyu maa lay ziar di la ñaanal jàmm foofu nga nekk ah. waaw waaw maa lay fay maa lay fay ba lay ziar bu waaw jàmm ci yow aja kon noonu la. loolu da ngeen di waxante sawa sawa rek. waaw mu ngi noonu. xanaa da ngeen ragalante. Ah? mais faw ngeen waxante bu jeexee. bu jeexee jeex na. rek jeex na. lu koy jeexal. boobu slogan waa Pikine benn non ba ne benn slogan boo xam ne la waa Pikine dañ ko wax mais yéen ñaar seen diggante lan ngeen di waxante. lan moo koy jeexal yow sa ay fans yi dëkk Pikine ak li ko wër daa ñu jàpp loolu moom fansam yi dëkk Bawol ak li ko wër daa jàpp loolu Boy Niang yow la ñuy déglu Tapha Tine a ngi nii toog ci plateau bi tey moo toog. yaa nga sama fans yi sama li ma leen wax rek moo ñu waaj xam nga contre la déggee dañu ñëw stade bu set dell mais bii moom damaa bëgg comme li père wax rek sama père Xaalim Samb maa ngi koy nuyu di ko ziar. jërëjëf di ko ñaanal jàmm. amiin doom. di nuyu sama waa dëkk fi mu wax waa waa Samba école waa Samba toku seet di leen bu baax a baax saa Samba pël di leen ñaan ñu ñaanal ma suñu borom ndam di nuyu sama waa kër maam Cheikh Rim Ndoumal Seck mhm. waa kër Cheikh na Cheikh Saad Abi ñoom la xam ñoom laa am ñoom sama wasila waa Tapha nag adversaire la rek boo xam ne dañ ko respecté muy champion rek ñu war a bëri xeex Pikine amateur yi incha allah te loolu mooy am. xeex ngeen war a bëri xeex. loolu da war a war a xeex Pikine amateur yi incha allah. dafa wuyu. xeex. waaw loolu moo war a am sax xam nga bés bu toll ni moom bés bu ñu tudd Cheikh Kanté. Hmm. xam nga boobu bés mënul yomb. maa ngi ci woo Bawol gépp di ci woo mbokk séeréer yëpp di ci woo sama mbokku kajoor yëpp nga xam ne yaakaar naa lambu ja moom 11h dina fekk xam nga. ñoom laa wax waa Pikine di nuyu aussi sama fans club yi nekk Pikine ah parce que dama fa bëri ay fans club. ah waa di nuyu xam nga waa buntu Pikine. Pikine da nga fa bëri ay bu baax a baax. bu baax moom bu ma ko fa ëppale wut. booy booy ñaa waa ji moom moo la ëppale Pikine ay fans. ah man ma dégg ñu la tey ngeen dee. booy ñaa dëkk tey ngeen dee. ay la lalla boo ñaaw wuy wuy waa ji nee na moo la gën a ak pikin moo tax man la moo tax man la loolu waxu plateau rek waxu waxu comédie waxu neexal rek. comédie théâtre. ah si parce que moom bu dee pikin moom foofu ay wax ah, de. non c'est très sérieux dama fa bëri fan non moom nee waxu théâtre ngay wax dégg ko. waaw mais loolu moom waxam la quoi loolu moom anyway waxam la quoi. non moom mi ngi wax ak yow noonu. waaw d'accord xam la moom. man mais man man laa lay wax. waaw man ku ma xam xam ma buntu Pikine yow buntu Pikine xam nga bu baax. dëgg la. bu tafaatin xewlee ñiy jëkk a mobiliser wu ñëw ci lañ bokk. pàkk lambaay ba waaw. jéem mais yow yow pàkk yow pàkk lambaay rek nga moom. wala seize communes yëpp non ci biir ci biir pikin yëpp. yëpp dama fa am dama fa am cër bu baax. problème yaa ngay démarrer mais lan ngay wax Boy Niang tey jii bu boo ñaa taxawoon fi ngeen jàkkaarloo lan nga ko war a wax a ca bés non xam nga xam nga xam nga mu nekk mu nekk distance ak mu nekk fii yëpp mm. pour man lépp benn la ci man waaw man tey xam nga amul champion bu ma taxawul fii tey dafa moom signature contrat dëgg waaw ku ñu jëlal vol nga dem fi boo pare def signature contrat fu ne champion bu ne nga taxaw moom xam nga mm-hmm. du signature contrat mooy ñëw du ah, ma <laughs> xam nga du ma def quoi gis nga xam mm-hmm. nga dañuy joxante cër quoi suma suma adversaire la frair la xam nga na bés bi neex na mel ni mu war a mel xam nga et loolu la. Mhm. muy noonu. waaw mais sama problème mooy Boy Niang Boy Niang wax ji wax ji déggoo ko de. waa ji nee na moo la ëpp ay supporters Pikine Pikine seize communes d'arrondissement la ñun ñi nga xam ne Pikine la ñu jàngee métier xam nañ ci dara. mais jàpp na ni du pàkk làmbaay rek Pikine nag li ko wër yëpp moo la fopp mbooloo pàkk làmbaay boobu muy wax maa ngi nuyu ñoom sëñ Diouf Fall ñoom Thier foofu bo foofu sumay biir Pikine ëpp fa booy ñaan doole comme ni wax rek bawol comme ni père wax rek bawol ñoo waaye laam li ma jaaxal ku ne si ñoom da nga bàyyi fa moom moom bu kii daa bàyyi Pikine dem fitoo ji Bawol kii bàyyi Bawol ñëw ni moom moom Pikine waa ji bëggul dégg lool waa ji bëggul dégg lool man loolu ma jaaxal fu mu toll nii man man boo ñaa loolu booy ñaa question lañ la posé waa ji nee na du ay question de comédie ku ko xam-xam ni ñii ñëw ñiy jóge làmbam ku ko xam-xam ko buntu Pikine te dëgg la buntu Pikine ak li ko wër mooy Pikine bul yaakaar Pikine na nga sàmbeek foofu mais Pikine moom nangu na ko sa loxo kon mun nañ wax ne que tey gars yi titre wala yi wax nañ wax ne que léegi tafaatin diggante bawol ak pikin tafaatin ku téye ci loxoom moom loolu la wax booy ñaar. amul problème loolu moom du ma ci nekk di ci accentuer di ci wax wala du sori quoi nañ yàlla suñu ko may tamit fekke bu fekkee am na ay supporters bu subaa nañ daay supporter ñun ñun ñu ak suñu ay supporters ak capacité international national bépp. Ah, waaw waaw international. parce que ñu ak suñu mbokk yi nekk incha allah bu ñu mais ci sa biir wax booy dañoo dañoo dañoo dégg nga wax ni. non damay kii da ngay da ngay da ngay bëree. pour <laughs> waa Pikine maanaam bëre bi waa Pikine. bokk na ci la gën a ci la nga ni Boy Niang da ngay bëre waaleel Pikine parce que Pikine bokk na ci la gën a yitteel sa diggante ak Tapha mooy kon dafa bi tekki ni ñoom bu ñu yéexee ñoom ñu war ay bawol ak ay paataar bu nu bu nu ñëwee fu ñu toog. yàlla dafa dogal ni doomu ma am ci làmb yëpp ñoom ñoo nekk sama ginnaaw ñoo ma jàppale ñoo ma dooleel ak yi nga xam ne ñu ngi jógee fu nekk di di jógee fu nekk di ñëw sama tàmbee Thiès Tivaouane ñoo joor jox yoon. ak yéen sama supporters fépp la rek ñoom ñoo tax ñuy rey suñu bopp. di ñafe di nekk fii ci ay conditions yu baax di nekk suñu bopp. mais pour ñu tëj chapitre boobu bu pare ma ne pour ñu tëj chapitre boobu bu pare le pari de la mobilisation mun nañ wax ni que kan moo koy gën a réussir le jour J yow nga joxe rendez-vous moom mu joxe rendez-vous ñu pari de la mobilisation parce que tey dañ koy wax sa daje bi nga mujj daje ak la de danga wane ni man booy Niang waxuma Pikine de waaye stade ba maa ci teg sama tànk ndax supporter yëpp lu fa ëpp yaa ko fa indi nañ waxante dëgg comme la ma Max Mbargaan waxoon keroog ba Cité di bëre mu ne ma xoolal fii ñépp a ko bokk fii amateur yi li ci des yëpp Cité barkal de la mobilisation naka lay demee waaw loolu moom loolu mille personnes dëgg la waaw Boy Niang waaw man boom man boobu boo ma tëggee yàlla dogal na li ma nekk di def ci géew yi muy fulaak fayda jom ok neexal neexal amateur yi teew tamit li nga xamante ni dama koy def ci wàllu biir yi fet dañuy sama yi fet stade bi dell solo ñu ciy sant yàlla bu baax a baax dafa mobilisation bi voilà moom bu jour baa boo mooy tuur sax incha allah ah comme li père wax na day jaay suuf si incha allah dafa mobilisation bi non mobilisation moom xam nga bawol bawol yaa ngi koy waaj ak fan si tafaatin yëpp bu dee camp de supporter lay wax. Ah. duñ ko ci may dara. ku ngeen ko ci may dara. non non non wax dëgg yàlla. bawol bawol yi ak waa Pikine bi nga moom léegi ñoom ñëpp ngi waaj ñoom ñëpp a ngi waaj bés bi. Mhm. te balaa cee xam dara ñu yegg ci incha allah. ma gis tam ci ni nga ñëwee ci ni nga toogee ci la waa bawol ni la taxawoo danga jiital lool fonk loolu gàllaaj ci sa combat bi. ba jënd kooba non li moom sama gars yi ma indi Baye Fall ñoom Cheikh Mbacke Soose maa ne ñoo ko fi teg. xam nga sax fu mu jógee man gisuma ko woon sax xam naa ci ginaa oto bi la <laughs> newoon ñu dugal ko. waaw xam nga moom gars yi moom comme ni ñuy waxee rek nee nañu tafaatin moo gën a néew biteel ak galaaj. Mm. loolu lañ may sant nan lañ koy wax sax moom lañ may décaler. Mm. ma leen di wax ne man taalibu Serigne Touba la. Mm. loolu moom dafa clair yow da nga privilégié bawol laa dégg doon taalibu Serigne Touba aw ma lu may tiit aw lu may ragal. ban place nga jox galaaj ci bëre. ci la nag ci la ko quoi mënul ñàkk. Mhm. parce que damay dugg àll bi comme ni ko ñëpp di defee. Mhm. dem uuti ko comme ni ñu koy utee bu la bu laajee billet d'avion sax dama koy def. Mhm. bëre nga ak Elton. bëre ak Balla Gaye ak Bombardier ndax mos nañ la leen di nuus ci galaaj ba nga yëg ni jàpp nañ la. non loolu su ma yëf la ko parce que bu ma jàppee nit it du ko wax kon bu ñu ma jàppee. mais ndax mos nga ko yëg xam ni. jàpp na la wala jàpp na mos nga ko yëg. non loolu loolu moom classe bu Baye Xaadim ñii ñoom ñoo koy mën a xam quoi. loolu wax na ko waxaat na waaw. waaye eh, eh, waaw. Eh. léegi balaa ñuy dellu ci Boy Niang Pape Thialis. Euh, ñoo ngi jëm ci bés boo xam ni Sénégal yëpp a koy xaar. ndax ñaari mbër yu ñu boole muy diggante Tapha Tine ak Boy tubaar tubaarkalla macha allah seen way rafet na ci réew mi ci géew bi rafet na. naka nga fas yéene organiser boobu boobule bés nga xam ni li ma wax sànq dama koy bamtuwaat kenn ki dafa nekk à fan nga toll ci organisation sécurité ak matukaay yëpp ba ñu mën a séparer ñaari camp supporters yi séparer amateurs yi ñu duñu làmb ji si jàmm. daanaka deux semaines moo ci des. waaw ah, ah, daanaka. daanaka. waaw mais avant avant événement boobu je pense que am ne beneen événement. beneen hmm. face à face boobu il faut ñu daje. parce que ñaari face à face kii ñëw na kii ñëwul le 24 juillet yam face à face dañuy daje. le 24 le 24 juillet le 24 juillet face à face payant lay nekk donc il faut que ñoom ñaar ñu daje. Mm-hmm. mën a toog waxante nit ñi Sénégal yi mën a gis soogu mën a dem ci làmb ji. Mm-hmm. loolu loolu foo koy defee face à face payant boobu. Euh, soit Marius Ndiaye wala Ibamar. mais ça mais face à face payant boobu lan mooy am ca biir. wala da nga bëgg jël système mu Gambien yi. non non animation aussi ñoom il faut ñu daje parce que ba léegi daje wuñu. waaw dafa mel dañoo ragalante. waaw loolu la ñuy dañuy teggante. waaw. waaw bu kii ñëwee tey bu subaa kii du ñëw. non daje nañ daje nañ daje nañ trois fois. daje boobu dafa doyoon waar de daje si plateau. la <laughs> ñu wax c'est-à-dire un contrat c'est un contrat. dañu daje si plateau. Hmm. te ñun jëriñu xaalis di ko sànni wala di ko leble. dañoo joxe xaalis bu nit ñi ñëw def événement parce que promo euh, sponsor yi dafa am lu ñuy signé contrat promoteur yi hmm. hmm. donc sponsor bu ñu bëggee ñu toog si lamb ji. il faut que aussi contrat yi ñu koy respecté. bien donc incha allah le 24 neen daje ça sera. un face-to-face payant soit Marius Ndiaye ou Iba Mar. mooy le 24 juillet. loolu du tendance mooy 4 jours. le 24 juillet la tabaski incha allah loolu loolu di tendance bu bees la mi. waaw face à léegi promoteurs yi. Mm. dañu koy def payant. parce que boo ndax lu baax la ci làmb wala lu baaxul ci làmb. pour man baax na ci làmb xam nga lu tax ñun nga baal ma ñuy ñu leen di nuyu au passage ñun fi ñu toll tey ci ci ci làmb Gambie tollu foo ci làmb xam nga lu tax. li mbër di fayeeku ci làmb mbëru Gambien fayeeku fayeeku ci làmb gis nañu wu ñu lii ñu gis nañu mbëru euh, na naka lu tudd roi des arènes u Gambie ma invité ko jongante mu ne lamit Samba dimbale ma nga wax gars yi pour ma am oto roi des arènes nu Gambie pour mu am oto foofu ta Gambie pour mu am non pour mu am oto bu muy dawal mm-hmm. te fii suñu roi des arènes nag suñu ay tafaati nag macha allah nous touchons du bois ñoom doy ay centaines de millions te ñoom boo demee Gambie tey seen seen face à face dañ koy jaay dañ koy xëccoo comme làmb mm-hmm. tey face à face boo demoon tey comme bi ma demoon bii passé ni France ak leket jam jam production tey daf ko tëggee woon tont fu toll ne Sadio Iba Mar Diop mais xaadim dafa fees dell te kenn ku ci nekk one hundred dollars si nga fay muy mille deux cent cinquante te stade ba dafa fees dell te mm-hmm. amul ay orchestre ak ay affaires yooyu noonu non non Sénégal nag comme Gambie dañu copier ci ñun ci wàllu làmb Sénégal war nañu toll foofu ndax promoteurs yi sonn nañ mhm. sponsors yi daw nañu làmb ji daanaka li leen di dawloo làmb ji Pape Thialis wax na ko léegi ndax mënuloo dem signe euh, contrat ak ki nga xamante moom mooy sponsor bi ne ñaari mbër yi dinañ daje ñaari mbër yi mel yi luy éviter lu mhm. te sponsor boobu dina ci am manque à gagner donc léegi Gambie copier nañu lu bari ci ñoom ci làmb ñu lañ ci féliciter ñu it dañoo bëgg loolu ñoom ñoo ñuy def noonu ñu copier ko ci ñun face à face gars yi di fay. mu nekk loo xamante ne nii fa tafaati dina ñëw def démonstration booy ñaan dem démonstration mu nekk loo xamante ni Pape Thialis moo ko njëkk tenté attention. Mhm. am na benn promoteur boo xam ne ah, jël ah. na date en Gambie. Mhm. pour def fa face à face rien que pour am fa dara. rien que pour am fa dara mais euh, dama dégg Tapha Tine léegi si waxu promoteur bi mu ni yow ak sa adversaire dafa mel ne da ngeen di teggante. bu kii taxawee fii nga taxaw fële bu taxawee fële nga taxaw fa ca des bëgg da ngeen bëgg a teggante ba dajee ca làmb ja waaw mais xam nga xam nga wax bi nañ ko wax euh, te bañ ko raay quoi xëj na yi fi amoon ci ginnaaw mhm. donc man loolu nekkul woon su ma coobare mhm. xëj na benn erreur bu ndaw la woon boo xam ne ci calis la woon moom na ko nangu ñun ñëpp nañ ko nangu yéen woon ci plateau bi xam ngeen la fa xewoon mhm. ñu kay dañoo dégg dañoo jikk jékki rek dégg teel. waaw mais pourquoi waaw waaw mais waaw Lamine Lamine. waaw mais bi ngeen déggee bruit boobu coow li mënoon ngeen a gën a caméra yi wan fan la histoire bi commencé du noon tafaatin ku ko xam durant suma carrière tey boo demee YouTube face to yi gën a toog yëpp man maa ko def. te muy dëkk mais tamit du hasard. sa adversaire ñu fal ko ambassadeur de la non violence. justement yéen ñaar ñëpp. eh Malick sportif yoo xamante ne nii la yu. Ah, Malick Thiandoum ñu ko Malick Thiandoum daan gàtt. loolu ku ñu ko fol na fekk nga xam ko. xam naka ngay comporté woo ko ah, du mm. du dégg. Mm. man kenn mosul dégg si àdduna yéen ñëpp ngi toog Tapha moo yàq bi bés mosul am. dëgg la. wala tafaatin lañ doon ate fii mosul am. nangul nañ la ko. affaire bi am fee nañ ko wax te bañ a raay quoi wax dëgg yàlla ku ne xam na ne man fi ñu mu fekk en place man mu buusa dem su ma yoon toog naa affaire bi stable ma dem su ma yoon kon man bëggoon naa affaire bi réussir parce que maa ngi sol blouson sponsor yére bii laa soloon. j'adore yaa ngi dégg. Mhm. bëggoon naa toog wax jàllale message ci diwlin j'adore bi. Mm-hmm. Assis Ndiaye suma xarit la dañuy déggante ma koy nuyu. Mm-hmm. xam nga teg na la. teg na ma tegati ma. Mm-hmm. comprendre nga bu ma señoon ñu taxaw wax li ñu war a wax. mais heureusement loolu amu fa bii xam nga gis naa ne métuwaay yi alhamdulilahi rabil alamin à la prochaine bu ñuy dajee. comme ni ko sa waay nañ jël métuwaay yëpp. man li ma waroon a wax foofu wax naa ko fa ci benn interview yaakaar naa ñëpp dégg nañ kon yu mel noonu xam nga du challenge kese quoi na ko promoteur yëpp éviter. mais yow la erreur bi. erreur bi du woon ci yow. non erreur bi ci. erreur kan la woon. man donc ñu ngi may convaincre bu mu jumul vingt heures. julleewu ma sama kër timis teel na maa ñëw pointé taal oto bi kilim bi xam nga muy ralante pendant deux heures de temps kooku bëgg na def fees su fees kon xam nga. mais ci wàllu ci wàllu organisation bi nga yegg see cosaan ñi nga fekk cosaan wax nañ la nga dugg biir cosaan. ñu ni ñu dafa am ci nit ñoo nekkaloon ñu ne la. non mais boobu boobu. teel micro bi teel yéen ngi liggéey li ngeen di liggéey parewul man juleewu ma suma kër timis wóor na ko moom mii bi may départ déggante nañ téléphone ah, mu am lu ma bàyyil benn affaire pour ma jël ko non wax dëgg yàlla déggante wuñu xanaa bi yëf yi jaxasooyee moom déggante nañ quoi mm-hmm. bi xeer yi meleen ni mbàccum gerte waaw ku ne di wér foo aw waaw waaw allah boobu moom mais ndax mun nañu xaar ndax ndax mun nañu xaar bés ba mu mel ni face à face ba ci croupe ñi mel ni mbàccum gerte bés ba moom xaaral lu ne quoi. Lamine Max dégg nga looloo. waaw match bi tas na. waaw Pape mais Lamine xam nga xam nga affaire yi stratégie la. c'est-à-dire waxuñu mbër ñoo yàq. parce que mbër yi xam nañu ñu mais nit mën nga ànd ni sa yàq def stratégie sànni xeer. xeex amu fa. xeer la jël di sànni. Mhm. donc kii sànni xeer mën nag stratégie pour pour pour daw kii bi. Mhm. donc mënuñ na kii la wala kii la mais lu mu mën a jàpp constaté ko mooy def nañ deux face face ñoom ñaar taxawuñu troisième il faut ñu taxaw par force. parce que mhm. loolu mooy yoon. sponsor yi sax doom bëggee di gone waaye mën naa bañ a jógee ci mbër mi bañ naa jóge ci promoteur mën na jóge ci na bañ a jóge ci promoteur bi bañ a jóge ci mbër yi bañ a jóge ci supporters yi jóge ci feneen ak ñeneen mm-hmm. ñu bëgg bés bi yàqu ñëw rax ci bés bi da ngeen di gone waaye man mi dem ba fekkee tey mm. xam naa kii maa ko jëkk a tëgg mm-hmm. Moustapha mi waaye tamit dooma ba su ma par su su ma su ci làmb mooy cursus président Macky Sall chef àddina bi ci politique dama ne CV cursus làmb CV bi nga yor ci làmb ci làmb nit ku ñuul amagu ko mille neuf cent à notre jour kuy wax salaamaaleykum ci xeet boo bokk ak askan boo bokk mooy mooy CV président Macky Sall chef d'état bu ñuul musu ko am du Amérique du Europe du Asie du nit ku ñuul noonu la demee dafa <laughs> si wàllu non violence gis nañu ay bés bi ñaari yoon feneen fu dul gars yi di yàqate arène nationale mu nekk bien boo xam ne dañu ko xeex pendant des pour am ko yéen ay porteur de voix ngeen lan ngeen di wax gone yi xam ne dañu topp si ginnaaw ay fans te yàq bërëb boobu nga xam ne dañu ko jagleel ba ñu ngi xas waaw xanaa xanaa di wax ne ñun ñëpp ay xale lañ rek xanaa ñu yokk yar bi quoi parce que lu mel ne ak ni mu taaroo vraiment nga toog donte ñu daan sa mbër xam nga nga mer naa da ngay dajji yi loolu ku ko def tegoo ko fen dañoo war a jël ay sanctions yu diis teg ko ci ñi koy def. bien loolu moo war a nekk. waaye parce que. lii kat jar na tàccu ñi ah, koy yàq tàccu leen lii jar na tàccu. ñaata moquette moquette ñi koy yàq ñi koy yàq du ñu ay mbër du ñu dara bien vrai mi sax mën na leen a bañ a xam xam nga. Mhm. wala boog dañ koy yàq dem seen yoon. xam nga jaxasoo ci nit ñi dem kon xama nga nañu gën a bàyyi xel mbër yi ñu gën a bàyyi xel. ñu mhm. ñuy àndal. source bu ñuy dem ci yooyu parce que arène bi xam nga mhm. topp nañu ko at yu ne ci àdduna kon bu ñu ko mayee ne xam nga nañ ko respecté quoi wax dëgg yàlla mhm. kuy ñëw nga ànd ak yar ak tegin bu ñu daanee sa mbër nga ànd ak yar boo daanee nga ñibbi ci jàmm ak salaam quoi mais ñu daan sa mbër rek nga mer di daji ay sees loolu ko def tegoo ko fenn le 6 avril 62 bu mhm. ñu defee 4 avril indépendance le 6 avril 62 keroog Léopold Sédar Senghor ak Ben Bella ak Diouri bi ñu ñëwee diggante Doudou Baka Sarr ak Faala yi ñuy bëri fii Sessagne ne ci ba yi dénk lañ toogoon boobu amuñu woon arène nationale hmm. kon waral nañu koo sàmm tubarkalla jërëjëf léegi gannaaw boo xamee itam dañu ne ànd ak suñu ay nattangoo ci euh, ndaje mi dañ leen di daal di ñoom itam ah, da nga leen di paas euh, paas ñoom itam ay paas décisive ñu baa doo leen paas ñu cote waaw léegi dañuy njëkk woo buur géwal ma ne baa doo leen ñu cote non bu ñu cote ñu taakale leen Sénégal jëm kanam tacle glissé leen tacle de récupération buur ñu njëkk woo buur géwal buur bul kott de suñu naataangoo la ah. suñu xarit la tam <laughs> c'est pour rire nu nu indi ko mu ñëw laaj ñëwal yegsil yegsil euh, foog naa ne micro mu ngi ci euh, Max Mbargane waaw <coughs> joxal joxal waaw joxal manager bi puy euh, buur géwal nag ñaara ngi ci moom waaw professionnel ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal ñëw mais tiitar la ñëwal fii booy bi waaw bu ñu da tuddee buur géwal tam tubaarkàlla buur ñu ngi lay ñu ngi lay ziar di la dalal jàmm ñu bàyyi la nga samp ñaari ñaari laaj rek ndax temps bi dañu bëgg mu orchestré wu mbër mu ne nga sampal ko benn laaj ñu tontu ñu woo beneen taskatu xabaar. Sénégal naat ñu avancé. jërëjëf euh, kon maa ngi leen nuyu nuyu sa pap Xaadim. Euh, Tafa euh, laaj bi ma lay laaj laaj bu gàtt lay doon Tapha Tine ku ne xam ci cercle de VIP la nekkoon tey ci cercle boobu mu nekkoon ki ko fa jëlee mbëru pikin la di Ama Baldé depuis lors Tapha a du mal. pour déclencher waat deltuwaat ci cercle boobu ginnaaw bi ñu fi daane yekk euh, Yékini Junior tey Boy Niang peut-être atu bi tafaa am ci moom mooy bagaar te Boy Niang mbër mu xaw a naqaree jàpp pour xeex ak moom bukki la pour nga pour nga fixer ko xeex ak moom xeex bi nga bëgg biñ la xamee ba toucher ko du yomb euh, ñaareel bi dafay soofal bëre ñetteel bi aussi ku ne xam ne ni waa Pikine ay indien lañu sûrement forcément il y la pression populaire te tey Tapha est-ce que il est conscient ni que bu ñàkkee ci Boy Niang luñ ko ko mooy est-ce que possibilité pour delluwaat ci cercle de VIP bi boobu dana yomb loolu mooy laaj ma lay laaj euh, beneen laaj bi mag di ko laaj Boy Niang mm-hmm. euh, Boy Niang waxoon naa ko keroog def na examen ci Lac de Guiers na mu daanoo avec la manière tey muy defar deuxième examen ci cercle des VIP te Abdou Aziz Alla Ndiaye li mu teg comme condition mooy su ñàkkee combat bi forcément diggante ak Balla Gaye dootul mën a nekk. Mhm. est-ce que Boy Niang moom tamit conscient na ci loolu ma jërëjëf Buur. boobu moom fekk nga ñu si ba noppi. waaw moom ah, tafa ñu bàyyi la ko ñaan. <laughs> waaw buur moom dama koy nuyu di wax ne moom dafa neex rek. Ah. waaw dafa neex waaw wax dëgg yàlla. Mm. Mm. comme ni mu ko waxee rek man làmb dama liggéey ba dugg fi mu dugg du ku ma fa mën a génne nag du champion yi may gis fii ñoom ñëpp laa respecté nag jox leen jër mhm. amul ku ma fa mën a génne parce que man maa fa dugal sama bopp mhm. ay VIP beneen xaw ma nan lañ koy waxee ah. amul benn mbir bu gën a supérieur Tapha fii bu du roi des arènes mhm. da ngay daan fii daan fii kii daana ma kee daan ma noonu yooyu moom I believe gëm yooyu suñu business la quoi kii da ngay daan fii ñu daan la fii amul ku ñu fi daanul loolu moom anyway quoi beneen beneen wax la quoi. non mais mais mais du dem anyway. kese beneen wax la Tafa beneen wax la non non non. du dem anyway suñu naatangoo la mu poser question. Mm. question boobu daf la ne da nga dugg Pikine échec. mais ñaata mbir laa daan Pikine. waaw mais loolu nga koy tontu. <laughs> quand moom moo la moom laa lay wax ne. waaw lamb da ngay daan fii ñu daan la fii. ok. amul ku ñu fi daanul. ok non daf la bëgg wax ni da nga dugg Pikine échec ci. Euh, Ama Baldé après nga duggaat Pikine. mais tontu ko ci euh, question bi mu la posé. waaw mais d'accord loolu mooy làmb. ne daan fii après nga teel micro bi sa war sax quoi daan booy ñaa fan la la jëme non lu bëri la may indil incha lu bëri mooy lan. lu bëree bëri. xaar li bawol bawol li lambu lambu lambu lambu da ngay daan dem sa yoon rek ti kat nu yàlla. am na lu gars yi wax. gars yi moom bawol booy dañoo daje. ne benn objectif la ñu am ci Tapha mooy pour mu nekk roi des arènes. Mhm, ma gis ci sax ñoo xamante ni ce sont des promoteurs je pèse bien mes ay promoteurs yoo xamante ne dañuy tëgg làmb ñu boole seen bopp ne léegi dootuñu nangu saax saax saaxee bi ak yooyu Tapha dañ koy ëmb benn objectif la ñu am pour mu nekk roi des arènes. loolu noonu muy méthode boo xamante ne nii mu ñu yàgguñu ci làmb comme ni ci père Khadim yàgge mais gis nañu bawol bawol yi mobilisé woo noonu loolu Lamine alhamdulilahi laa ji wax donc say mbokk bu ñu paree pour fekk si la jàppale la rek sant yàlla la ko ah kon am naa lu mu amut woon alhamdulilah man di gërëm ñoom ñëpp di leen wax nañu jàppale ma si kombaa bi mooy yóbbul leen roi bi bawol daanu ci Boy fu mu lay fu mu lay def ñaanuma ko yàlla mhm. wax dëgg yàlla ñaanuma ko yàlla mhm. daan naa gëm te moom lay ñaan yàlla suñu borom te ci loolu rek laay liggéey incha allah. jërëjëf boo ñaa ñu bàyyi la nga nga tontu Bour Guéweul. maanaam waaw. dégguma la wax doo doo li nga wax. sama adversaire dafa am benn temps boo leen ko dafa am benn temps nee na dafa am benn temps. buñ ko jox mu wax moom dafa war a wax. yaa ngoog sénégalais yaa ngoog. adduna ngoog ñëpp a ngi lay déglu. sa sa adversaire Tapha la tudd. da nga wax ci kaw Lamine waaw. sama adversaire bi dafa am temps bu mu am pour wax. waaw am loo xam ne da koo wax te fu ma tontu ko ci moom. waaw ñëwal ñu ngi lay déglu bismillah wax ci kaw. merci dafa wax affaire bi la fekk suñu science bi passé nu mu demee. waaw. da wax ko booy ñaa ambassadeur de non violence. te loolu bu ñu la ko paree da nga ko war a xam. Mm-hmm. loolu xam nga moo tax ba ñu toj ba ñu tojee suñu oto ak lépp lu ñuy def teewul dañoo ñëw. jëmal bës bi rafetal bës bi moom boobu affaire yi amee ak coow li pare dafa dem yoonam. promoteur bi woo ko ñëpp woo nañu ko sponsor bi woo na ko ñëwul. man ñi ma àndal nekkul ñooy jël sama oto di ko toj. man de malgré problème yi am damaa ñëw sëbëy bis bi rafetal bis bi taaral bis bi. donc moom côté boobu noonu am na loo xam ne du waxam maa ngi dégg mu waxam du waxam laa ma moonu boole dañoo war a bëre dañuy bëre te loolu mi ngi suñu kanam mooy sponsor bi maa ngi koy nuyu bu baax a baax muy Jador ak Ndiaye diwlin diwlin bi am solo maa ngi koy bëggee di bu baax di ko wax ne gis nañ accompagnement mënoon na génn ci làmb ji rek ne génn naa ci làmb mais mi ngi jàpp na làmb quoi bu baax sax vraiment j'adore. waaw di ko remercier bu baax a baax. ci question boobu waaw pour di ko ni pour dégg naa li nga wax maa ngi lay di la partenaire si ba toog yëpp. waaw ah, enjeu combat bi xam nañ ko bu baax a baax. Ah, parce que ñun suñu nekkoon ci làmb di bëri suñu ay morom. ba yàlla def ni ñu bëri suñu ay morom jeex donc foofu donc foofu ñu bëri suñu ay mag. comme li ma waxoon nag li ma bëgg ci làmb natu wala teg yi kenn moo koy may damay entraîné da fulla ak fayda ak jom donc ba ci tayal rek incha allah ma jëflante ak yow di ñaar fa maa ngi nuyu waa Foukourna sama gars yi ma nekk waa Foukourna ñoom Biram ñoom Waly maa ngi leen di ziar seen taxawaay bu baax taala incha allah après loolu ma jërëjëf ñu ñu daal di jox. Euh, beneen confrère ñu daal di jox beneen confrère pour mën a génn ci phase bu mujj bi si face à bi ñu woo soxna Fatma maja moo war a ñëw pour poser euh, benn laaj ci euh, mbër yi anamu simila sama doom la. tabarkalla. man ma am ay doom journaliste. tabarkalla mu ngi nii di ñëw mbay. sama doom la laa wax. man duma ma commentaire loolu. man de sama doom la. yow it sa doom la. tubarkalla ja jàpp ko kuy papa. jàppuloo maa ngi laa ziar. déggal déggal. posel sam question Lamine bàyyi ruubee. yamal kuddu ñu roof la ci wata wat. Lamine Baye Roubé. mbii mi argaay. <laughs> doomu jàmbur jàkkaarloog caméra bi. <laughs> asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñëwal caméra baa ngi jàkkaarloog moom nii. tabarkaal waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. Mhm. Euh, di nuyu képp koo xamante ni rek yaa ngi ci salle bi. di nuyu suma papa yi ma fi fekk ñoom ñëpp. Mhm. père Khadim Samba sama chéri ak sama père Lamine Samba ak Mala. Eh, di nuyu nit du am ñaari papa. waxal sama papa Lamine Samba dong sama papa Lamine Samba ak sama papa Maodo Cissé bi ma fi fekk si. Maodo Cissé waaw man laaj bi may laaj Tapha mooy. waaw Tapha Tine sànq buur da ñëw ñu gis ni sa combat ak Ama mën dañoo wax ne moo yàq. Ah. peut-être lu bari sa carrière ndax su ma nee sa carrière mooy tey ñi nga ñi nga xam te ne ñoom nga waroon a bëreel mooy sa génération. ñu gis ni keroog euh, li nga xamante ni ba ngeen di jàkkaarloo. dafa am benn incident bu amoon mooy affaire violence dafa xaw am tuuti ba amaa am lu mu la sotti affaire bi ñëwaat répété waat ci bii nii ci seen face to face bii nii kii am seew victoire ki nga xamante ne moom mooy Ama Baldé est-ce que tamit yaa ngi bàyyi xel ci loolu noonu loolu mooy sama question si yow. waaw mooy comme li ma wax buur rek xam nga ñun ay mbër lañu ay champion lañu mm-hmm. <laughs> ci làmb lañ nekk. Mm-hmm. da ngay daan fii. Tapha da ngay téye micro bi. da ngay daan fii tey suba ñu daan la fii mhm. buñ la daanee fii da ngay dem daane ñeneen làmb noonu lay doxee quoi bu fekkee xamoo xamoo lan mooy businessu làmb mhm. noonu la demee quoi amul dara lu may suma carrière quoi maa ngi fonk mais ko da ko bëgg a wax ne que làmb daan daanu match moo ci am <laughs> loolu la quoi maa ngi bëree yàlla mu may suturaal maa ngi am ndam quoi mais am lu ma seetlu ci tafaatin ngeen baal ma hmm. mbokk yi ngeen ma maa ngi jéggalu ko hmm. xaarim dafa mel ni jël bi mu daanu ci Ama Baldé daf ko am à au travers de la gorge dafa mel ni yow même buñ la la buñ la waxee ci euh, Ama Baldé li ma la daanee rek dafa mel ni nga baal ma xol bi day jóg. non lamin booy. sànq non non question la rek. question la wallahi question la. xam nga xam nga lamin man dama daan ay ay champion. dëgg la bëri ak bëri ñu nangul la comprendre nga. Mhm. mais naka la ñu may daane ki ma daan ma ñuy wax ci moom suma xol di jóg. non waxuma xol non non dafa mel non nga wax bien sûr. dafa am mbër moo xam ne dafa am mbër yoo xam ni. Mhm. dañ naan diw bu ma daanee fekk daanu ma ko. mais am lu ma neex mais ana ñi ma daan foo leen di def dañoo am ndey am bàyyi comme man. dëgg la. bi ma leen daanee ñu leng leen ñu ñibbi su fa yoon wa ñu jëm sori lool. xam nga man ma ñëw suma kër suma waa kër di bëggee ñoom ñuy jooy. dëgg la acca buñ ma daane sportif noonu lay mel. Eh, amul problème. Euh, eh. ñu jox nga posé Boy Niang question parce que asamaan si mu ngeen nawetal na biir. Boy Niang li ma koy laaj mooy dañoo dañoo dégg nii que nii ba mu nekkee xale papaam da ko doon fayal pour muy def boxe ñu dégg Mouhamed Ali Ndiaye Boy Niang muy ni nga jàkkaarloo Boy Niang waaw ñu dégg Mouhamed Ali Ndiaye mu ne moom euh, Boy ña sax moo ko dàq xeex. ñu hmm. gis ci combat yu bari. moo mooy Ali Niang boxeur. waaw mu wax ni champion mm-hmm. mu ne mu ne Boy Niang moo ko dàq xeex ñu gis ni Boy Niang xeexam gisaguñ ko réellement ndax gis nañ ni sax au moins que ni Tapha yóbbu na Bombardier Ardo est-ce que tamit li muy wax tey mën na koo jëfee moom ak Tapha Tine taxaw na pour raak ak moom merci jërëjëf Tapha ñu tontu rapidement en mode fast track euh, Boy Niang dafa mel na ni dañu am quelque Tapha booy ñaa yaa ngi dégg. ma ngay gestu bi. ñang baalo takkal bi. ñang baalo. am na lu ko réer de. waa am na lu muy seet. am na lu muy seet. am na lu muy seet. <laughs> Euh, booy ñaa. question bu rëcc ko. casque bi mu tekki ci kaw la. léegi léegi bu bu ci ñëwee dinañ dinañ ci euh, dinañ ci tontu ndax ndax dañuy woo beneen journaliste wala dañuy bàyyi Tafa mu tontu. non Tafa non non wala nga woo keneen dañuy beneen journaliste. Calis euh, Ndey Mbàkke mi ngi suivre mais casque bi da ko teg da nga tekki casque bi te casque da ko teg ci kaw quoi moo tax du ñu déggante en fait booy ñaa mu tax casque bi booy ñaa dikk na waaw léegi ngeen dee balaa booy ñaa di ñëw nañu woon Ndey Mbàkke le temps booy ñaa di takk casque bi ana Ndey Mbàkke mu ñëw moom itam euh, poser question Tapha Tine voilà waaw bàyyi après dinañ ko dinañ ko jox question bi ñu paqueté ko mu tontu ñaar yëpp booy bi tam sama doom la waaw ba tey bisimilah da ngay téye ci digg bi mbàkke ñu ngi lay ziar booy doom la laa ilaha illallah mbay li mbaa jàmm la ndey posal sa question acca <laughs> maa ngi nuyu ñëpp ñu fi toog sama première question nag Tapha Tine laa koy jubale mhm. ñu gis Tapha ba nga jógee sa combat depuis ak amaa bale ba léegi. ba léegi. <laughs> changement dafa am. Mm. rawatina nga duggaat Pikine am Boy Niang nga méfié wu sa méfiance ñëpp gis nañ ko pour nga gis Tapha Tine sax problème lay doon yow da nga jàpp ne Tapha Boy Niang ci mystique la la mun a jàpp ba tax nga méfié wu tëju wala lan la. Mm. soo paree ma posé sama question. non posé bi rek posé euh, enchaîner après moom mu tontu kële tontu. beneen question bi nag Boy Niang laa koy jubale. Mm-hmm. dernier sorteem. waaw ñu gis ma du ma ne di mu kaddu yu mu yëkkati mu ngi naan tafaatin Tine jour combat bi dinañ xeex man ak yow ndax loolu nga woote sama diggante ak yow est-ce que bëreeg Tapha dem ak moom ci mer du nekk handicap ci moom merci beaucoup. merci beaucoup Mbacké euh, euh, euh, Boy Niang allo waaw Tapha Tapha tontul. pikineti Ama Baldé même même question bi la rek quoi. moom <laughs> pikineti Ama Baldé. waaw muy noonu quoi muy noonu loolu moom yaakaar naa tontu nañ ci ba pare quoi. la la naate noonu sax. non loolu la boo ñaa am wóolu dañuy dañuy kaj ñu woo pël bu rafet mu ñëw pël bu rafet suñu naataango moom itam mu ñëw boo ñëwee nañu indaale kosom ndax pël moom buñ ci yokkee rafet da war a indaale kosom ci nawet la lu ne man la ñaari micro ngay waxee nii ah loolu dafay kaay da <laughs> yaa ngi takk sa ñaari moom non non yaa bëri feem. <laughs> allahu akbar ah. teel ci digg bi. waaw jàppal ci digg bi bisimilah. asalaamaaleykum maa ngi ziar ñëpp. Mm-hmm. di ziar le grand promoteur. Mm-hmm. sama question ci Tapha damay ñëw yow si sa maas ndax dañoo gis ne saa boo doon bëri doo yor maas bi. ñu gis ne nga war a bëri ak ki nga xamante ne mooy booy Niang ñu jàpp ne xëy na peut moom moo tax nga wàññi maas pour jàmmarloo ak moom mais bu dee ci wàllu xeex ñëpp yow lañ favoriser mais bu dee ci wàllu jàppante dañ ne bu ngeen jàppante yaax booy ñaar ci yow lay gën a métti lan ngay wax sénégalais yi nga xam ne dañ la favoriser ci wàllu xeex sa diggante ak Boy Niang mais bu dee ci jàppante dañ ne doo am dara lan ngay wax ci li nga xamante ne côté boobu mooy ñaari côté yi Boy Niang sama question ak moom. Mhm. la fois passée dama ne ko woon euh, sa combat bi passé da nga génnoon à l'extérieur bii ndax da ngay génn dem préparer wu ji. wala da mhm. toog Sénégal mu ne ma duma génn fii laa koy préparer après mu génn dem. Mhm. may xala laajte Boy Niang ba xam dafa toog xalaataat ak xeex biñ favoriser tafaatin ba tax mu génn mu tax mu génn euh, dem liggéey ji li nga xamante ne mooy xeex bi merci beaucoup. jërëjëf euh, Tafa. waaw mi ngi mi ngi may dégg waaw mi ngi may wax nañu ma ne mi dégg. Burhan waaw wax nañu ma ko. lépp dina leer Tafa ñëwal. <laughs> ki képp ku indi sa nañu jàpp ni télévision Futurs média dañu ne mooy seetu Sénégal. fa la ñu yem. Hmm. Tafa demal Tafa demal. waaw Paul maa ngi lay nuyu xam nga combat bu ne ak na koy paree. day am combat yoo xam ne da ngay sar si frigo bi ay ginaar ak xar ñëw taxaw loolu la laaj. Hmm. dafa am combat yoo xam ne da ngay ñëw physique. loolu la laaj am na mhm. combat yoo xam ne da ngay travailler xol bi. ak mobilité. mbër bi dafa gàtt nii laa koy pare kii dafa njool nii laa koy pare xam nga. Mhm. kii donc corpulence bi nii la ko yàlla bindee dafa nooj wala tànk yi dafa jub wala rinki la nii laay waajee ak moom. yow xanaa da ngay def ay séance vidéo. non bien sûr. <laughs> parce que li ngay wax nii wax séance vidéo la. mais loolu mooy non xam nga xam nga sport bu fekkee da ngay def sport te xamoo leen mooy sport na nga bàyyi. dëgg la mhm. man laa wax de. man li ma ëpp li mooy seetaan ci ci télévision sport la. dama koy pratiquer bopp. comprendre nga. Mm-hmm. combat dafa am nu ñu koy pare. kii mm-hmm. njool na nii laa koy pare kii dafa gàtt nii laa koy pare. Mm-hmm. kii luur la nii laa koy pare. pël nag xaw ma wàññi pois wala kii xëj na loolu yaa ko gis si man. doomu aadama mu la yàlla bindee mais Tapha ku la xool xam ne yaa ngi wàññi ni la yàlla bindee quoi bi xëj na mooy yàgg ngay souplesse ngay ngay ngay wut ci combat bi lu suuf mois des fois xam nga des fois da ngay nit nit rek nga des fois da yokku des fois nga wàññi noonu la quoi mais ñun xam nañ suñu combat naka lañ koy gérer incha allah da ngay dellu France damay dem France booy ñaa pël pël nee na da nga ne woon keroog cosaan doo voyagé tey ñu woote waat ndaje fekk la ci réew mi nga voyagé lu tax nga voyagé da ngaa jaakaar ne boo demul waa ji dina la wulli wala da nga foog pour nga wulli ko moom il faut il faut nga dem mel ni mbàccum gerte waaw kay moo tax nga daw wala damay ruube ndax yow comme comme pël boobu xam naa dafa déglu keneen ma laajee dama ne bi ko staff bi ñoom ñooy décider parce mhm. waaye comme ni ñu ko wax rek xam nga comme nax naa la ko liggéey liggéey continuité la day xam préparation combat bu baax a baax xam li ñuy soxla pour bëre baax baax am. loolu jàmm la. Mm-hmm. Euh, am na ku waxoon euh, foog naa ni am na benn euh, ci journaliste yi ku waxoon ni xee waaw xeex xeex bi ñu lay bi ñu lay jiiñ ba léegi gisaguñ ko mooy box bi ñu lay jiiñ gisaguñ ko Fatma Dia moo ko moo ko posé kañ ngay kañ ngay wane xeex bi. jot na de ndax yaa ngi bëri takk ci borom kurpe yi. waaw ça dépend rek ça dépend rek làmb moom xam nga comme ni ma la wax rek làmb bëri la ak dóor. Mhm. donc moom incha allah kenn koo xamante ne dama lay moytu ci xeex amul benn ak kóordoon bëgg ñu xeex yow bëgg nga xeex Tafa. Tafa tu am la bagarre. lépp lay def. lépp ngay boole. barke yàlla maanaam da nga koy supp kanja lépp lay xeex Boy Niang nee na lépp lay xeex lépp lay def lépp damay xeex damay bëri ah day mm, neex lay nekk ah amul benn acca ñu jël bu mu coupe rek ñu fay ko. Ah, nee koo yor. affaire tam baax man ñaari montre <laughs> nu woo <laughs> Mbaye Babacar fay mu ñëw moom itam daal di samp laa jam ñuy soogam ji nag di euh, def tour de table pour mën a tëj. ndax Mbaye Babacar men waaw waaw danañ ko waaw. ana Mbaye Babacar. booy Mbaye Babacar. waaw Mbaye Babacar. moom itam booy journaliste yëpp booy bi ak buur booy buur gëwee la ci. Mbaye Babacar bi Mbaye Babacar ak Nafi Ndiaye sama rakk ji. waaw mu ngi noonu di ñëw ngir nag ñu mën a ñu mën a mën a daal di euh, tëj waxtaan bi avant ñu dugg ci pay per view bi sëñ Babacar ñu ngi laa ziar. Mbaye Babacar. jërëjëf <laughs> Malal maa ngi lay delloo ziar. Mhm. nuyu fi teew ñëpp. di leen ñaanal jàmm ak salaam. man benn question laa am pour Tapha Tine. Mhm. dañu gis tafatin ba nga xamante ni bii dafa xaw a wu par rapport ak yeneen signature de contrat yi ñu doon gis da doon tàngal di paccal kaan yi. riic ci bëggaj ba mu saf sap mais dañu gis bi yoon mu mel ni. méfiant dafa sóor xale bi ba ëpp de trop xaw ma adversaire bi moo toll noonu xaw ma combat bi moo toll noonu loolu laa bëggoon nga jox ma ci benn explication par rapport ak sa yeneen con signature contrat yi nga xam ne moom lañ doon gis ni nga doon tàngale bii nga ñëw euh, seral. da nga da nga da nga da nga mature ci côté communication wala lan la lan moo xew. jërëjëf jërëjëf sëñ Babacar. Mbaye Mbaye Tafa. waaw mbay Babacar comme ni nga ko waxee rek mooy li ma wax sànq rek tey boo demee YouTube face fees yi gën a euh, yi gën a toog Tapha moo ko def. Tapha mooy hmm. jëkk a def face to face distance. Hmm. taxaw centenaire di wax keneen di wax. dëgg la loolu c'est clair lépp ci Tapha lañu ko jëlee. kon hmm. jinax bu tebee dañu naan beneen teb na. loolu ci tafaatin premier bi rek la ñuy wax jinax maa maa la wax loolu a ngi nii maa la wax loolu mais gars yi gis ni que tafaatin boobu ñu doon def noonu loolu lañu la wax tafaatin boobu noonu tey gisuñu ko waaw mais bi bés la rek bés la lamb la comme lamb yëpp ah lamb bu ma respecté la nag bu ma jox cër bu bool bool yi jox cër gis nañ ko ci yow waaw loolu moom c'est clair wax dëgg yàlla xale bi tam fonk na bés bi de bien sûr daf ko ñemee ñàkk fonk il faut mu fonko kuy dajeeg tafaatin il faut nga fonk bés bi. lan moo tax kuy dajeeg tafaatin da nga war a fonk bés. il faut nga respecter il faut nga respecter tafaatin xam mooy kan ak li mu def ci lam ji ak ñi mu dajeet man ponkol yi ci lam ji yëpp maa leen daan. mais yow ku la nanguwul respecté loo koy wan. non loolu bu arbitre soufflé lañ ciy xam dara. ku la respecté wul. bu arbitre soufflé lañ ciy xam dara quoi. par force na la respecté. non loolu moom anyway quoi. anyway. man daal de tey anyway la indi. anyway de tey la ñu waar. dimbali ma dama jëm mag léegi. wuyu ma. Ah. tey xale bi indi wéy la indi la wax mu ne indi des fois des fois damay dugg dëkk ba nag. di nuyu sama gars yi waaw américain waaw man naa sa dem États-Unis hmm. da nga dem États-Unis pour vacances da nga dem états pour entraîner wala da nga dem états le boo xam ne depuis 2011 durant suma combat ak Elton maa ngi koy dem. Hmm. may nuyu ñi may dalal foofu xam nga ñoom may mère Ndeye Fall. Hmm. Laye xam nga ak Père Youssou yàlla na ko yàlla yërëm suma papa la di nuyu waa Elda bi yëpp Elda avenue Gambie yi xam nga Guinée yi nekk foofu yëpp maa ngi leen di nuyu ñëpp di nuyu képp kuy dund États-Unis ak Sénégal bu ne ci biir ak bi ci biti yëpp maa ngi nuyu ñëpp quoi. franchement. ñu ñu Lamine Seck bu nu paree daal di dem si Thiandoum pour euh, pay per view soo ko mën a def tenir tour table Lamine Seck. eh bul yem ci Lamine Seck de. ah kay le Gambien. ah dafa am loolu Gambien. non déglu ma. waaw moom kay déglu. dalal ko mbay teel. waaw ah, Lamine Seck dégg nga Lamine Seck teg ci digg bi teg ci bi. ok ci rek li ma li ma bëgg a dégg Lamine Seck. Lamine Samba. le Gambien. le Gambien. <laughs> waa ñu ngi nuyu ñu seetaan TFM yëpp. dafa am question bu Bour Gueweul posé sànq. Hmm. ñëwoon ngeen ci. Hmm. foog mu ñëwaat ci parce que plateforme bi tamit da nga leen di posé question. Hmm, ñu ñu éviter ko. wala wala ñu ñu lay tontu sax. mel ni dañu mer. dafa dañu gis ni cent pour cent Bawol ngeen defoon. léegi ñu gis nag san sans frontière maanaam ñëpp dañ cee dugg Lamine Samba laal na ko mm-hmm. sànq promoteurs yi dugg nañ ci mbër yi jël seeni engagement mm-hmm. supporters yi comme ni nga ko waxee waa Pàcc Lambaay ñëpp jóg loolu noonu man ba ci ay promoteurs yoo xamante ne mm-hmm. dégg nañ leen sax ñu ne Tapha moom tant que muy bëri léegi kenn dootu ko jekku ci gàllaay di man jël naa ay promoteur ñu wax genre wax yooyu loolu leer na wax loolu pression lay yokk Tapha Tine wala da koy gën a ñeme loolu non beneen bi sa combat bi ngeen koy. benn benn question rek benn question non non du ma si kii booy ñaar moom laay posé ñaar yëpp. non da ngay def posé benn rek jàpp ci rek le Gambien. on a un problème de temps. waaw du booy taay bàyyi tooñ waa yow tamit déet. nga naan ko le Gambien dañu am problème loo ko xamee Gambie. combat bi ñu taxaw bi nga ñëwee bureau Leewtoo dañ la laaj wala avant ñu lay laaj da nga ne xeex force. Hmm. xeex force boobu yaa ngi ci ba léegi war a jóg nga ci wala da ngay day dépendre ci sa adversaire rek. voilà jërëjëf waaw Lamine. jërëjëf 100 pour 100 Bawol la ak Bawol sans frontières yëpp yaakaar naa yëpp benn la. Mhm. temps yi pendant une semaine ñu ngi ma gis may wàcc ci géeju Sumbujum may nuyu waa Rëbës Medina bi yëpp xam nga ñoom ñëpp actuellement ñuy pare combat mbay guy gi ma koy ñaanal suma frère la. Mhm. moom moo ma wàccee ci place bi. Mhm. ma koy ñaanal ndam bu wér a wér ak bépp mbër buy tàkki Bawol. mooy comme li ma wax rek Bawol yëpp ci ginnaaw Tapha man ñëpp laa nuyu fi ma nekk. muy wax Bawol ñëpp di leen talal loxo aussi ñu ñaanal ma ci sama combat bi waaw le reste. non le reste daf la bëgg xamal ne la. Mhm. xam nga dañuy wax cent pour cent Bawol. Mhm. bii ñu ne Bawol sans frontière. Mhm. bi moo moo gën a yaatu mu am extérieur rek lépp. mais li ma la bëgg xamal mooy dafa dafa gis sax ay promoteurs yoo xam ne dañu ne. tafaatin Tine léegi c'est fini kenn dootu ko jàpp ci gàllaaj. waaw mais bien sûr mooy li ma lay wax rek tafaatin kon am na lu mu amul woon. ñoo ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen wax na gën a yaatu. loolu pression la lay jox wala. loolu la wax mooy li ma wax rek Tapha moom amul làmb bu ko mën a def pression sànq moom laa leen wax. mbir yi gën a ngand ci làmb ji Tapha moo leen daan. Tapha Tine dafa mel ni làmb ji am nga ci pression xaw ma lan la. non never ever. oh. ah. never ever. lu tax lu tax amoo amoo pression ci lii tekkil ma never ever jooju déglu rek. mooy musu ko ci am. musutu am. jamais never ever Euh, lu tax amoo pression ci combat bi. non du moom mos a am. pression dangaa daf laa wóor ne yaa mën waa jëm déet. non parce que damaa dajeeg ku hmm. nekk. kii du waa Leewtoo bee. damaa dajeeg mbër yi ab doole ci senegal daan leen. kon amul mbër bu mu mën di def pression suma live. Hmm. non. Euh, Boy Niang. capacoli waaw Boy Niang capacoli bu jeexee jeex ndax yow am nga pression ci combat bi. pression ci combat bi. <coughs> Oh, man di làmb <coughs> man xale laa boo xamante dama nekk ci ay yoon ànd ak sumay mbokk moom moom moom moom bu jàppee dina ko bi moom nekk ba ci bëgg combat man nii di xale nekk yoon la laa woon def combat mm-hmm. ma nekk sama yoon nekk xale. ñu bàyyi toog sama ginnaaw yaakaar ne maa fu ma teg sama bët jafe bëri samay morom man ceex may ñëw di bëri moom bu jàppee dafa bëgg combat bi man nan laa ko war a def xaaral ma hmm. ah, ñetti yoon yaa ngi wax xale nga xale nga xale nga Tapha Tine la. Hmm. moom bu jàppee ni moom bu jàppee ni dafa bëgg combat ok. ko combat wala dafa jaral ay mbokkam man booy ñaar xanaa bi ok voilà ñu ñu daal di euh, woo. Euh, keneen ku xam na xam na xam na a baax nag. tubaab mi ngi wax dëgg waaj de. non dégguloo li mu wax woon li mu bëgg a wax mooy. waa ji bu jàppee ni mu ko gën a gën a bëgg combat bi mi ngi nax boppam. ah te moom nee na moo la gën a. na waaj boppam waaw le jour si rek lépp dina leer incha allah. déglu ko. Hmm, wax daal ji gën naa dëgër wax ji gën naa dëgër bee boor de. nootu kutu ko pare. nootu le jour dina leer incha allah. pare naa ci. Lamine <laughs> tukutaare. <laughs> léegi nu nu nu dalal. yow dégg nga maa moom la. kutukaare yow ma demoon kutukaare. kutukaare ma dara ma. Amadou ñaar la. waaw ah, waaw ñoo ñuy wax yëpp dëgg la dëgg la maa bawal bawal la ñu yi ñu ngi si ginnaawam. loolu yëpp dëgg la loolu yëpp rafet na parce que nit moom boo nekkee sa mbokk buy bëri foog nga jàppale ko amul benn problème. Mhm. mais ñu ngi doon waa suñu ay mbokk suñu ay am di jàmm waa gën seen seen Mohamed Fadel ñëpp nekk suñu ginnaaw yaakaar ñu moom bu bëggee combat bi benn la ñun bëgg nañ ko mil te comme li ma ko wax rek moom lu mu ci bari rek bañ ma ko ci ah loolu de leer na. waaw da bi benn moom bëgg na ko mil loo ci bañul bañ ko ci nootu mm. ku ku paare. non loolu moom. <laughs> match bu waaw maa ngi nuyu sama italien yëpp ñoom. waaw cun. waaw Papa ak El Hadj yëpp. xam nga boobu de mosoo ko dégg nootu kuppa kuppaare. waaw xam nga xam nga lamb moom. xeex ba dina bëree bëre baag yëpp. waaw na arbitre bi suuf la rek. moom loolu la wax. waaw man loolu laay xaar incha allahu rabi. non moom loolu la wax léegi ñaar yéenay daje ci kàttanu yàlla ci kàttanu yàlla ci kàttanu yàlla Pape Thiès fay ñu ñaan war a bëre. donc moom li sax li may wax rek loolu moom àddit moom dina gën suñu diggante ci kàttanu yàlla dina gën suñu diggante yi suuf la incha allah ci kàttanu suñu borom loolu suñu na ko def incha allah ba tas. waa wax ji li muy wax yëpp waxam la quoi man moom xam nga. fa ma nekk fa ma nekk maa ngi fa quoi loolu moom waa mu ngi noonu. tubarkal. nu woo Cheikh Tidiane Thiandoum ngir waxtaan ak moom ci pay per view. na ma. Euh, waaw du Malick Thiandoum. non Cheikh Tidiane Thiandoum. Thiandoum bi moo sut suñu bos. Thiandoum bi moo sut suñu bos Cheikh Tidiane bisimilah. yegsil nu nu waxtaan tuuti rek. ndax temps bi dab nañu te mi ngay bëgg a gujj. te dafa dafa war a dafa a def mais ñoom tam leen moom ak Pathère. waaw def nañu week-end bu décisif. jógee jóge jógee Kaolack. après dem Mbour Pàcceer ak équipe bi yëpp ñu ngi leen di féliciter di leen encourager. tubarkaal bon travail il faut travailler c'est comme il ça. il faut travailler euh, ñu ngi lay ziar di la bàyyi nga waxanteeg sénégalais ci naka la ñuy def pour xool combat bi surtout ñu nekk bitim réew te mu ñu itteel leen. du fépp lañ koy mën a seetaanee. nay leer nay leer. acca. asalaamaaleykum. maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp ak waa diaspora bi di nuyu ñi fi toog muy sunu papa yi ak sunu mag yi fi nekk. di nuyu aussi euh, sunu lutteurs yi ñi nga xam ne ñoo ñu fi tax a daje di leen ñaanal aussi yàlla may leen jàmm may leen wër ndax seen jàmm seen wër mooy tax bés bi mën a antu donc ñu ngi leen koy ñaanal bu baax a baax a baax donc li ñu fi indi tey euh, mooy wàllu pay-per-view mooy naka la nit ñi nga xam ne ñu ngi nekk fii Sénégal wala ñu nekk à l'étranger nan lañ mën a amee ay paas jëndee paas ci site bi pour mën a saytaan mhm. combat bi voilà donc pour loolu ñun ñun ñooy waay di YS streaming ñun ñooy euh, diffuser combat bi en ligne mhm. donc dama bëggoon ko bëgg a ci internet bi yéen leen koy jox ñun ñoo leen koy jox mhm. donc euh, ñu bëggoon rek euh, avec la régie bu fekkee c'est c'est disponible mu dugal benn vidéo boo xam ne damay won Sénégalais yi ak ñi nekk ci diaspora bi naka la ñuy def ba ñu jënd paas. balaa may ñëw ci wàllu euh, sécurité bi nga xam ne ñun def nañ ko. si mm. wàllu pay per view. Mm. pour que sénégalais yi xam ne y' a pas de risque et mën nañ jënd seen paas ñu seytaan sans aucun souci. da nga def benn moo nekk nii waaw dafa am benn démo bi ñu préparé ba pare benn vidéo site baa ngi nii boo boo duggee dangay dugg ci trois 3 lamb lambdiaspora point comme boo duggee site baa ngi nii ñaari mbër yi ñoo fa nekk donc euh, boo. xoolee y a les face a face wala rencontre yi am oh. da ngay bës ci benn rek tu cliques ci benn euh, vidéo rek après tu la possibilité jënd soit benn pass wala ñaari pass wala dix pass mm. donc euh, c'est que c'est-à-dire il nga leeral foofu pass yi avant combat bi lépp lu Tapha Tine def lépp lu Boy Niang def di nga ko mën a saytaan bu ñu am mi ngi mu ngi ci biir di nga ko mën a saytaan voilà donc euh, pass yi pour loolu la ku xasa jënd rek di nga mën seytaan seytaan jusqu'au jour du combat di nga mën a seytaan. lan mooy benn passe ñaari mooy est-ce que pour depuis boo xasee jënd tey. lépp lu xew. pour mbër yi. muy seen face à face comme bi Thialis wax noonu yooyu yëpp dina fi nekk. di nga ko mën a seytaan donc euh, suñu kii yi c'est jusqu'à jour combat bi donc. comme ni ngeen ko gisee xaaral dama bëgg a commenter vidéo bi comme ça mu bañ a dem. comme parce que vi passe bi nii kii passe bi nii lañ koy jëndee da dugg ci rek après nga jënd par exemple pour par exemple bii pour dix personnes la dix mm. pass mm. donc nga dugal sa adresse email nga dugal aussi euh, information carte bi mm-hmm. date d'expiration bi ak code à trois chiffres bi boo ko mm. dugalee rek et puis automatiquement y aussi euh, nga dugal dëkk bi nga nekk parce que ñun on a incorporé pratiquement diaspora bi yëpp fépp foo mënti nekk ci monde bi donc tu as possibilité nga jënd euh, pass donc pays boobu incorporé nañ ko ci biir plateforme bi Mm-hmm. voilà donc comme ni nga ko gisee bu cliquer ci pays bi y a la liste des pays qui est disponible mm-hmm. dëkk boo nekk rek foo mën mënti nekk voilà mën nga voilà mu adapté wu mm-hmm. donc suñu plateforme bi jël na en compte yooyu yëpp dëkk dëkk boo mënti nekk voilà boo xasee jënd nag pour dix personnes yi nii donc ticket yi ngay ticket bi ngay jot dix personne mën nañ ko utiliser mais dix boobu mënoo ko weesu mm. voilà donc bu xasee kii rek. yow kese mën nga jënd mais dix personnes mën nañ ko. utiliser mën nañ ko utiliser exactement. donc boo xoolee ñun on a sécurisé aussi le fait que carte nit ki y a possibilité pour que nit jël information carte bi là c'est c'est c'est c'est suñu moo ko def. Mhm. donc euh, vidéo bi mu ngi nii comme ni ngeen ko gisee nu mu leeree donc tu as la possibilité aussi def ko plein écran nga mën a saytaan du am benn rupture comme vous le voyez nga mën a saytaan combat bi en toute tranquillité donc. nii la ñuy jëndee paas ci euh, nu mu tuddati sax ci lambdiaspora point com mm. voilà donc boo xasee jënd rek jeex na donc à partir de tey jusqu'au jour du combat mën nga xool di seetaan face à face yi lépp lu nekk si si si si plateforme yi di nga ko mën a seetaan donc ma ñëw ci beneen aspect boo xam ne bëgg naa si euh, ah, bëgg naa si wax bu baax a baax mooy euh, sécurité bi nga xam ne ñun def nañ ko si si si plateforme en plus ñu bëggoon aussi wax que ne pour ku bëgg jënd paas fen dañ ko ko mën a jëndee mooy fi ñu wax foofu làmb jas amul beneen site boo xam ne mën nga fa jëndee yéen dong yéen a koy jaay képp amul amul fit kenn amul fit ah. kenn nañ ku la wax feneen la ko koy jëndee pudul fii nañ ko jàpp nañ ko ne wub sàcce match ba tas <laughs> voilà beneen kii bi. Mhm. mooy que ne euh, on a la possibilité de fair prévente maanaam képp ku jënd avant combat bi. Mhm. tu as la possibilité am nga 30 pour cent de réduction. ah maanaam léegi la gën a yomb. voilà instant bi dafa yomb moment bii la gën a yomb combat bi nag da ngay fay 100 pour cent. Mhm. donc on leur actuellement nii bu dee téeméer la. voilà téeméer bu nekk wàññil nañ la ci fanweer. fanweer exactement ok bu dee téeméer la 700 ngay fay. 700 ngay fay exactement noonu la ko demee. donc instant yi nii. loolu la ñuy malal ma ci génn de xam naa soixante-dix pour cent bi ci plateforme on a intégré la possibilité pour nga utiliser euh, nu mu tuddati sax moyen de paiement locaux yi mm. mooy ay Wari ay euh, waaw xeet yi xew rek donc yooyu yëpp ak Mastercard yooyu yëpp Wave yooyu yëpp ñu ci biir voilà ci wàllu sécurité bi ba bëgg ci insister bu baax nga may ma rek ñëwal sécurité bi mooy que ne euh, xam nga da ngeen di am possibilité yëkkatel yëkkatel micro bi ah. dañuy am possibilité ñuy diffuser ci réseau sociaux yi combat bi mm. ñun dañuy travail ak des américains ak copyright protection yoo xam ne mm. képp ku diffuser sa site internet wala sa compte dañ koy bloqué et dans la minute qui suit dañuy suspendre d'abord sa bi. maanaam képp ku ko sàcc dootoo ko defati jàppal ni yow. pare a doon côté boobu moom on a on a dañ ko sécuriser maanaam pour toujours. exactement dañ koy sécuriser. ah bon site bu jël combat bi site wala compte Facebook wala lu mu mën ci doon booy diffuser combat bi ñun loolu dañuy bloquer sa. pour toujours on va pas revenir. toujours ah, voilà pour toujours ah, exactement. beneen affaire bi ñu def mooy que. ah là là c'est l'information pour là c'est l'information aussi. oui dañu def aussi euh, sécurité pour ñi jënd passe par exemple tu as la possibilité nga jënd passe ak sa téléphone am na sécurité buy def. en sorte que ci sa téléphone boobu rek nga ko mën a seetaan. ok ñun on a la possibilité boo jëndee ci sa téléphone mën nga ko seetaanee feneen. beneen appareil que ça soit sa télé wala wala wala beneen appareil boo mënti utiliser. donc pour ce faire. ñun ah, dañu mm, yow man mi jënd paas bi. du sama téléphone rek laa ko mën a seetaanee. su ma neexee mën nga def mën naa ko jël teg ko ci sama télévision. mais boo ko xasee yóbbu ci beneen support. waaw ñun dañuy am benn euh, technique bu tudd multifactor authentication. Hmm. boobu. moom mooy permettre ñun dañ lay envoyer adresse email si beneen euh, kii si sa compte email. beneen code. code boobu ngay mën a utiliser pour dugal ko ci sa télé bi wala sa beneen kii pour boo ko xasee dugal sa télé ñàkk nga ko fële automatiquement on désactive l'ancien appareil donc sécurité boobu tamit dugal nañ ko ci voilà beneen affaire bi mooy que ne euh, dama bëggoon rassurer les amateurs rek parce que pay-per-view boo xoolee récemment y a eu des chose yoo xam ne c'est pas souhaité quoi tànk ci ginnaaw rek dootoo ko defati avancé <laughs> maa ngi koy gis donc pour dire que pour rassurer les les amateurs Euh, am na ay événements yu fi am récemment. Mhm. yoo xam ne euh, les amateurs n'étaient pas contents. donc pour vous dire que suñu plateforme bi c'est très sécurisé et puis am nañ bande passante bu doy. ku bëgg a seetaan rek vraiment boo jëndee kii rek doo ko regretter. mais mal man dafa am ñoo xamante ne dañ daan jënd passe par exemple ci seen téléphone mais qualité image bi du baax. wala duñu maanaam du leer loolu il faut nga rassurer nit ñi aussi tam ñeneen seen bande passante baax na ok mooy flux flux image ah bi man damaa déggu tubaab yi yàq ay bande passante da koy wax ci olof ñu nit ñi dégg ko merci pour leeral boobu dafa am solo parce que day tax ñi nga xam ne dégg ñu ñu xam ko bien sûr bien sûr merci beaucoup Lamine Samba may terminer temps bi may terminer rek pour contact yi le temps non il faut pas suivre les mots aussi et les consorts ah, ah, tu fais tourner Sénégal voilà tout donc juste pour terminer avec les contacts. Uh -huh. voilà suñu site web bi c' est www.lambdiaspora.com. www.lambdiaspora.com voilà suñu adresse email bi c' est contact arobase lambdiaspora.com. voilà pour tout contact mën nañ ma contacter si sama numéro 77 403 48 00. am nañ aussi page 403 48 00 am nañ aussi page Facebook BYS Streaming Inc. boo xam ne ku fa dugg rek waaw bon c'est des américains en fait. sunu euh, serveurs yëpp c'est c'est logé aux États-Unis donc moo tax ñu am bande passante boobu. voilà donc juste pour terminer euh, di gërëm ñëpp. jërëjëf di la remercier également ci possibilité bi nga ma jox pour mën a exprimer wu ci plateau bi. jërëjëf Thiandoum donc di la di remercier ñi nekk fii yëpp di remercier waa Sénégal yëpp. jërëjëf merci jërëjëf euh, di di jégalu ci nu nu nu accélérer fin émission bi parce que aussi Sénégal la ñu nekk. il est zéro heure quarante trois. nit ñi dañuy xëy suba. Euh, nit ñi dañuy fii d' accord mais Boy ñaar dafa dem France décalage horaire bi c' deux heures de temps il fait deux heures quarante cinq à Paris te dafa dem am ay horaire ak i contraintes yoo xam dafa war a yeewu faja dem entraîner Tapha aussi am ay contraintes war a war a entraîner moo tax ñu compressé euh, fin émission bi pour mun ko jeexal léegi Lamine dañuy bàyyi Tapha mu mu tàggoo wala ñu njëkk bàyyi Boy Niang mu tàggoo ñu yeewi ko. ta Tapha tàggoo ñu soog def tour de table loo ciy def. loo ci def rek. ah léegi boo ñaar tàggool tàggool tàggool Tapha jox jox ko yóbbal ak waa Sénégal. waaw maa ngi delluwaat di nuyu plateau bi yëpp. ziar ñu ko nekk ku nekk dina jox sa ak sa wàccuwaay. waaw di nuyu adversaire bi. nuyu waat waa kër Cheikh Cheikh Sadou Abi waa kër Cheikh Wuldu Maamin nuyu sama dëkk sama cosaan muy Sàmbe te baax a baax di leen ziar bu baax région de bi yëpp maa leen nuyu fan si maam di jàmm fa nekk parce que man cosaan Sàmbe laa cosaanoo donc Bawol bi moom kenn ku mu bàyyi mbokk ah maa ngi nuyu Touba Daaw Rahman. loolu coow loolu kenn du ko rek. maa ngi leen bu baax a baax. fi ma nekk ñi nga xam ne moom laa nekk di entraîné te ñuy a ci man baax baax. ma mhm. la coach Eric maa ngi koy nuyu bu baax ak jabaram. maa ngi ko condition bu baax ak commando suma frère suma lépp suma grand. Mhm. di nuyu nag autorité Pikine yi. di leen wax ñu jàpp ci combat bu baax. ku ci mel ne suñu père Abdoulaye Timbo Thierno Dom Ba Sakho Mbeer Amadou Mbaye sama sama grand sama lépp combat bi combat am la Amadou Diagne ak góor bi ndong Amadou Diarra maa ngi leen di nuyu di leen ziar sama papa sama xarit. jërëjëf di nuyu sama papa Mbaye Kando. yaa ngi koy ziar bu baax a baax Pape Mbaye Gueye Faye waaw xam nga nag sama yàlla dafa dogal sama côté yaay sama mbokk géwël yi. ali ni nuyu bu baax ma papa Mansour Mbaye sama papa Alaaji Mbaye Peex sama papa Xadim Samb moomu toog maa leen nuyu bu baax a baax di leen ziar bu baax. jërëjëf. waa Futkona maa leen di bëgg waa Futkona la grande marque maa leen di bëgg bu baax. jërëjëf. Waly Gueye maa ngi koy bëggee sama grand di nuyu Papa Seck. sama ko waa kër maam Cheikh li mu maa Seck maa leen nuyu. tubarkalla xalifa bi Cheikh Ba Cheikh Seck maa koy nuyu di bu baax a baax. waaw ak ñoom jaare yërëm suñu si sër yooyu ñoom ante yërëm maa leen ziar di leen woo ci combat bi. jërëjëf booy. waaw di ñaan bu baax Mbacke Balla. macha jërëjëf. jërëjëf Tafa ak sëñ sëñ Modou sëñ papa sama xarit maa ngi koy nuyuwaat sëñ Modou Kara Mbacke Noreye. sama xarit sama am di jàmm yëpp maa ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay gërëm incha allah ñu ngi lay gërëm bu baax a baax naa ni lii waññe euh, na professionnalisme hmm. ndax toog ba bi mais toogoon bi tam dara dàq dara ah waaye nag obligation yi dafa mu am bien sûr Lamine Samba waaw Lamine waaw a waa Tiwaawan sama soxna fa waaw waaw waaw waaw <laughs> di nuyu di nuyu Cheikh di nuyu di nuyu Cheikh Mohamed di nuyu sëñ Mansour. dëgg waa nim nga fàttewul kenn maa ngi jaar ñëpp bëgg ñëpp. Ah, ah. ministre des sports Matar Ba maa ngi koy bëgg bu baax su ma ñëwee fii bokk nañ la ci jàpp bu ma ñëw fii. Pape Thialis Pape Thialis xam na situation yi ñëwee fii moo tax ñëwul ca moo ñu ci face à face bi. waaye ñun waaye ñun ay mbër yu respecté contrat lu xam ni contrat wax lañu. di sañoon dañuy toog foofu ñëw defal mu baax yëpp naay. jaajëf jërëjëf yaatu bi moo tax ma ñëw fi entraîné du ñëwaat incha jaajëf jaamu euh, Boña ñu bàyyi la nga tàggu waa Sénégal Tafatine waaw Malal maa ngi lay nuyu aussi di nuyu Lamine Samba bàyyi ko mu wax mhm, ak euh, li mooy làmb hmm, Père Khadim Max li mooy làmb DC Thialis ak ñi fi teew ñëpp waaw di sant mbokki Bawol aussi di leen woo ci bés bi. Mm-hmm. di waat Bamba Fall maire bu maintenant xama nga xam ne mu ngi waaj bu baax wax dëgg yàlla ñoom Bada Jon Daouda Sarr xam nga di leen woo ñoom ñëpp di woo Pape Thiam Diourbel. Mm-hmm. Amet Dieye waa Touba Toul xam nga ñoom ñëpp maa ngi leen di woo ci bés bi ak maire bu Refane muy Jib Thiaw. Mm-hmm. ku baax ñoom ñëpp a ngi waaj bés bi ku defar nañ ci seti yi actuellement ba xam nga commencé nañ ko. kon ñu ngi waaj bés bi. di sant aussi Tidiane Bousso nga xam ne ñoo nekk salle di entraîner ensemble xam nga ak Kanté Kanté ñoom ñëpp Mohamed Kot xam nga ak suma entraîneur yëpp. ngi leen di woo xam nga ñu gën a téye di sant aussi Thioune papa ak Elas ak estafu bool boole yëpp. waaw sa xarit ndeysaan nga entraîneur yi ma yore yëpp ah. ñi ne ci bërëb bi nga xam ne Mbaye Ndewane moo ne ci bopp bi xam nga ñoom Ibra Diagne Daouda ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di woo Bawol yëpp ci bés bi di leen wax ne seen bés la tafaatin moo xewle na ci ñëpp jàpp yàlla defal ñu ndam incha allahu rabi. ana Baba Ndiaye nga aussi suñu xarit. dama <laughs> koy dama la sant aussi. sant aussi suma soxna. ak suma njaboot suma famille yëpp. waaw boo amee combat gars yi di sant suma papa. waaw suma yaay di nuyu aussi sumay goro xam nga ñëpp maa ngi leen di nuyu daal. ana góor gi waaw mu ngi fii ñoom ñëpp. ndeysaan góor gi nag saa veut dire papaam. voilà <laughs> xam ni mu mel ci moom ñoom Max nii xam nañu ak ñoom Xaadim xam nañ ni. voilà ñu ngi koy béggee bu baax fi mu nekk ci Refane di nuyu waa Refane yëpp. Mm. waa di nuyu njaboot gi yëpp di wax ne xam nga kontaan naa ñu ngi sant yàlla alhamdulilahi rabil alamin jërëjëf euh, Tafatine ci dal gi ci yaru bi ak ci disponibilité pour tontu suñu ay laaj euh, Khadim Samb. père Khadim Samb. déglul de. Ablaye Diaw waajur la si man. Mhm. suñu toogee plateau dama ne ab Ablaye jaw parce que mhm. on est à l'antenne on travaille suñu génnee. Mhm. du ma duma dama du ma sigg xool ko. comme ça. dëgg la. am nga bës la set balaa nga ñëw ci parrain bi. dama bëgg nga wax ci bés ba ak ñu koy bari waaw jërëjëf euh, Malal maa ngi lay sant bu baax di la gërëm. incha di sant mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci. Euh, di sant mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci plateau bi di sant Max Mbergane sama xarit mu yàgg lool. ak euh, sunu mag cuun da ngay da ak mboolem ñu fi nekk di sant na fi Njaay ak journaliste yëpp waaw kay di ñaanal ñaari mbër yi yàlla sunu boroom defal leen jàmm mhm. la set waaw xam nga dama liggéey vingt neuf ans ci rajo mhm. def vingt cinq ans ci télé ba retraite mhm. at mu ne may tëgg benn làmb di ko def feet bis boobu nag parrain principal bi mooy le président Macky Sall. bi mooy deuxième édition bi. Euh, ren nag yàlla dogal ku yokkut yaa wàññi ma am sama rakk sama doom. ñu wax Tahirou Sarr. men ma di ko ci delloo njukkal. di ci jaajëfal Omar Sy. Euh, bés bi nga xam ni moom la defal président Macky Sall ci la set. ki koy bëre mooy kéwél ak ñaq jariñu dëgg nga. dara trophée ki nga xam ni kii mooy euh, Tayrou Sarr ki koy bëree mooy euh, mooy Sanderep waaw moo koy bëre ak capitaine Dina dëgg mhm. trophée Omar Sy dëgg nga ki koy bëre mooy ki nga xam ni kii mooy Sandengleer mhm. ak Albouri mu des juróom-ñaari combat loolu mooy am la set mhm. fas nañ yéene incha allah danañ commencé signature contrat yi ak face à face yi euh, ba ñu àgg ci ak jàmm bu soobee yàlla dinaa leen ci invité yéen ñëpp. di ci invité sénégalais yëpp ak sénégalais yi. Euh, euh, di wax ni Pape Thialis sa papa sa xarit sa nijaay muy le ministre d'État envoyé spécial président Macky Sall. Mhm. nee na cant jóge ci ay njabootam ak soxnaam ak bokkam yëpp. mi ngi la koy jébbal di la ñaanal yàlla sa ci bëgg yàlla ko ci yàlla defal nee sant na la gërëm na la ndax boo ko tànnee jagleel ko bis bu tol nii mu jël bés bi jagleel ko plateforme bi jagleel ko père de la nation gardien de la constitution ak jigéen ñi nga xam dañoo nekk siin rawatina région Fatick xam nga doom nee naa leen jibi lànk laa ko tuddee xam nga yéen a ngi wax Boy Niang feesal wala Tapha Tine feesal ñii seeni supporters dañuy taxaw. plateforme mas ngeen a dégg ñu wax plateforme ci làmb. yéen mas ngeen a gis seex bokk ci dara am na ñoo xam ne ñu ngi jënd yére di ñawlu ci góor ak jigéen à travers ci biir Sénégal ak bitim réew. parce que plateforme bi wax naa ne mille 2013 ba mille 2021. mille 1017 sorties la def ci biir réew mi ak bitim réew te plateforme boobu 1017 sorties junniy sorti damay bañ ñu ne xaadim sàmm waxati na mm-hmm. moom la def ci biir réew mi ak bitim réew te ñëpp dañuy ñëw bu àndee dogal yàlla ci bés bi cant ak caalis gim mu ko doon sant sant ko ay mbokkam sant ko caalis production nee mu ngi ñaan yàlla yàlla nañ ci egg ak jàmm bi ci des mu ngi sant mbër yi di leen ñaanal di leen gërëm jërëjëf di wax ni waxoon naa leen ne bu fekke ni ku ñu tudde làmb nga mel ni Cheikh Kanté kenn dootu bàyyi làmb mm. bokku ci de moom laa fi toogal moom laa fi tee bala maa dem doom waaw damay remercier suma benn xarit bu ñu wax colonel Momar gi mm-hmm. dañ ko décorer bërki démb prix Nobel ci Thiès ngir jàmmam di écrivain bu mag am teyit sama doom bu xam ni làmbam yéen a ko reporté muy Cheikh Issa Sall directeur général u ADEP di suma doom di suma xarit jërëjëf di wax ni doom na ngeen jàpp ni daal yéen mbëri yi communicateurs yi manacé yi organisateurs yi yéen ñëpp incha allah kenn ku ci nekk kuñ tuddee ci làmb nga ne ndax dana mel ni Jibi Lanke Cheikh Kanté doomi Mari Jonn ak Keba Kanté ji jërëjëf jërëjëf ñu fàttali tam mbokk euh, téléspectateurs yi làmb ju ñu duppee euh, Pathé Ndoye Ba te Thiam production tëgg ko mu ngi noonu ci tele bi le 10 lay doon lamba ja nee nañu euh, caatu yaraax moo cay bëre ak Zal bu baax Pathé Men lañ ko tuddee Pathé Men suñu Pathé nga xam ne suñu directeur rek eh, suñu directeur Birane Ndour kon bii combat combat waa Futur Média la combat waa Futur Média la ñu ah. ñu jàpp ko fas yéene ci lañ euh, ko xale bu bëri njëriñ waaw tudd nañ xale bu bëri njëriñ muy Pathé ndoy Ba euh, Lamine waaw ñu ñu Tapha Tine moom mën nañ ko libéré foog naa ni waaye bala moom bala Tapha dem waaw na ngeen waxtaan ak supporters yi doom nañ leen libéré waaw def def ay ndajeeg ñoom voilà lu am solo laay wax jërëjëf daje ak président fans club yi waxtaan ak ñoom xamal ne leen làmb duye fi saay saay duye fi xaj jërëjëf buura daa bëri démb buura daa organiser làmb géwel bi ko daa tëgg sax buur la daa doon ay buur ñoo daa seetaan làmb làmb bala koo bàddoo la mos a seetaan day xer permis door cee bokk kon no ifi noobal la jërëjëf ñu ñu libéré Tapha Tine libéré aussi booy Niang ndax gujj na gërëm leen bu baax a baax ci seen ci seen Pastef ak seen seen liggéey euh, Pape Thialis ñu tàggoo waaw xanaa di di d'abord di remercier sécurité bi mhm. donc général de de la gendarmerie ñu ngi koy remercier di remercier aussi contingent bu fu nekk pour assurer sécurité c'est très important ñu leen remercier di remercier aussi sama équipe Leewtoo bu ma àndal. donc teg teg nuyoo teg remerciement bi si loxo Maxime Margan bi coordonnateur bi. bu ñu jógee si aussi di remercier public bu fi ñëw. mais aussi di remercier suñu partenaire mooy sponsor yi. donc di remercier Jador bi nga xam ne aussi sponsor moo njëkk annoncé wu comme sponsor ñu ngi koy remercier remercier Aziz Ndiaye. di remercier les sponsors di Signawoor di Port di CDC CDC donc di di di la Poste. donc di structure yëpp nga xam ne tey jii ñu ngi soutenir làmb ñoom ñëpp ñëw nañ pour soutenir làmb ji donc di se remercier aussi Jador parce que moom moo njëkk ñëw pour mën a xëcc ñeneen ñi donc je dis que ñoom waaw mbër mbër mbër yi daal mbër yi daal na seeni jabar di togge sadoor mbër muy lekk Sador nag doo xëri ñeen ñi boo ñëwee ci làmb ji sa koofar du gaaw a jeex te lekk diwlin Sador alaaji Lamine mais c'est important parce que man bokk naa ci ñi nga xam ne max euh, Jador njëkk nañu gëm li muy def ci émission ba sponsorisé ko ay at te ki démb aussi tamit leer nag keroog ba ñuy dem Gambie ak Jamaïcain sa xarit Max Jador daf koo gunge kon ñuy gërëm Aziz Ndiaye di wax li Tapha Tine wax dafa am importance bi mu bàyyee làmb yi li mu amaat daf ko delluwaat ci làmb ñuy delloo njukkal Cheikh Kanté le docteur di wan ne bés boobu ñun suñu bés la di gërëm Kéba Kanté doomam ji nga xam ne dafa doon baayam ba pare donn baayam gërëmal nag Ami Diawara de non non moom moom beneen la ami moom lu lu ah, lu docteur Cheikh Kanté dugg mu dugg ca mm. malal ah, waaw may may gërëm ki ma sañseel bàyyi Lamine gërëmal ah? la ko waaw Lamine gërëmal ko parrain bi non non non parce que Cheikh waaw dafa am lenn loo xam ne dafa nekk ci moom mm-hmm. mu ñun munuñoo munuñoo wax li ci Xaadim Sàmb xamul mbaa mu wax ko ci mais lenn de xam naa ko képp ku tuddee Cheikh bés am nga problème du moom rek de du fameem rek de mais ñëpp ñooy sot xam nga lu tax ndawalu guddi la ku daj da ngay yaakaar ni yow rek a daj fekk ñeneen daj nañu te attention soxnaam dafa boot bis bi ay mbokkam dañoo boot bis bi ay am di jàmmam dañoo boot bés bi te mu wax nga dëkk pare mu mel ni Cheikh dafa tum woon ci làmb yow di ko yëg li xaadim wax dëgg la de yow di nga ko yëg signature bee sax maanaam bii di bii bii ngeen bëgg a def waaw buñ cee gée ngeen jom mi yéen ñëpp moom loolu laa lay wax dama lay wax ne la yéen di ngeen ko yëg ñëpp dinañ ko yëg ok léegi nag dañuy wax ne waaw ku yokkul yaa wàññi dama mhm. fii laay liggéeyee mhm. at mu nekk damay def opération tabaski non c'est vrai fii laa koy waxee du ma dem 2S di ko waxee du dem RDB di ko waxee fii laa koy waxee at mu nekk damay def opération tabaski di jaay ay xar yu baax am ñoo xamante ni dama ko séq ak ñoom ren ma am ñoo xam ni xaadim dama sa ay xarit ñoo xam ne dama def collaboration ak ñoom muy bergerie Kër Baye ma Ndiaye xam nga leen bu baax. may nuyu bu baax a baax Saxiir Sey Babacar Sey Ndiaye ak Pape Sy ak Pa ak Cheikh Mbay ak seen soxna madame Sey ndax ay xar yu yéeme lañ ma jox dañ ma koo jaay muy ay xar yoo xamante ne ay xar yu yéeme lañ ma leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal jàmm. ñu ñaan yàlla yàlla def jàmm ci réew mi parce que seul le travail paye xar yaa ngi nekk fii ci mali Malibu bi am naa xaru cent mille ba deux millions ku la ñawal na maam jaara fashion fu mu ne may ma tuuti maam jaara fashion ñëw sama soxna la moo tax waaw tubarkalla dëggal kon baar damay nuyu aaw buru këram waaw di ko ñaanal jàmm parce que boot na sama soxla yëpp dafa jafe tey soo demee sama daral tey sama ñetti soxla yi ñoo toog di jaay billaahi wallahi lu jafe loolu nag chance li Kumba gaw la wax sëy du choix sëy chance la damay toog fii gërëm sama aaw bi nga xam ne moo boot ñëpp boot aji màgget boot ajaa jabu ñoom ñëpp mu boot leen ñoom ñett ñëpp ñoo fa nekk di di jaay max loolu dafa am solo bu ma kenn du ma freiné man yaa ngi dégg baax na ma la ma leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla defal jàmm lii nag maam jaara fashion moo fa génn 77 510 08 09 77 510 08 09 di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm sama rakk ji man damaa naqadee nekkal te daf may gérer may wax ni vous êtes un très grand professionnel j'ai beaucoup d'estime pour vous ma lay ñaanal yàlla defal la jàmm yàlla aar la yiir la suturaal la ñoo far boot nga ñëpp te it yaatal nga may xamal nag ni rendez-vous bi jongante la après nuit de la lutte dimanche bu nekk lay am ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant sama rakk bopp ji Nafi Ndiaye. jërëjëf nga xam ne ñoo bokk Fary Mbuub ak Aram Seck. jërëjëf Max bégg nañ leen jërëjëf yi Lamine Samba di di gërëm ñi nga xam ñoo ñëwoon toog fii toogaay bu jekk bi nga xam ni yàquñu bés bi taaral nañ ko bu baax a baax waaye itam di gërëm ñi nga xam ñooy xale yi ne suñu ginnaaw di ñu jàppale ci wàllu sañse pour ñu mën a liggéey ci télé bi di di nuyu waa Beaux Arts Couture ñoom ñi ngi nekk cité Apexi seen téléphone 78 la euh, cinquante 50 51 ñu ngi nekk juste en face euh, fi nga xam ne mooy plage BCEAO di gërëm Mouhamed bu baax baax ci liggéey bi ndax yi ñuy sol ay bés yëpp moo ci jàpp ak yërmande ak ak xéewal bu am solo di gërëm ñëpp bu ñu euh, noppee dañu daal di jox léegi ma jóg peex ngir mu ñëw nag daal di euh, doxal li des ci combat yi nga xam ne moo war a xew waaye laataa ma jóg peex di ñëw dañuy daal di bàyyee ak kàddu gi ak barxaam moom mu léemu peex ñu ñu daal di dem toog seetaan la ci des jërë ngeen jëf ñu fanaan jàmm barxaam ñool ci plateau bi ku man sa morom naa kaa ñu bare jëli soy bilay ma ne laay laay ay tay nu bare ku ma sa maram daan tay nu bare laay laay man lewtu wotna ñi ci réew mi ñi ci bitim réew ak fu waay ma naani way yaa ndem reew man wooy laay ma ne waawoy